hello guys maa ngi nii sonnati ba si butu te ma bëgg a waxtaan si dóor xale gëj naa ko de dóor xale dóor yu bon ni mu baaxutee ak su magee li muy def xale bi ak loolu nu mu taxee bañ xam sëy yu bon yeeg askan bu bon bi nga xam ni yëpp ci dóor yëpp yi ni ñi def la jógee <clears throat> ak yow jigéen ji instead ngay toog ci sëy bu bon di mer di dóor sa doom yeeka naqadi deret nga seet yi danga dem wala nga nangu toroxtaandi ngay dund boot bu ko sotti xale yi xale yi teguñ la ko soo sëyitee tamit jàppal si yàlla te muñ waaye bu ko teg xale yi xale yi teguñ la ko jos jàpp si yàlla you know ak calm down di ko xale soo leen di yar si dóor ak yuuxu ak naqadi deret daf leen di affect suñu magee suñ xamee jëkkër suñu xamee liggéey suñu waree àndul àdduna duñ ko man ni ngay def noonu la def ya te ni ngay def yow soo gisee ñu di jël ci yow di ko nangu because yaa leen jur xamuñ cooy xamuñ fuñ dem xale lañ suñ magee di ko def ñeneen ñooñ duñ ko nangu because ñooñ noonu du ne ñu noonu moom moo leen jur wala ñooñ ñoo ko jur dafay nekk ne ñu muy liggéeyandoo la wala xaritam wala school bu muy jàngee wala jabaram wala you know léegi su neexee di def jikko yooyu noonu su meree dóor wala yuuxu wala xas du mën a am jàmm ak ñooñu you know soo yow ngay bàyyi xel ne xale bi daf lay miro lu ngay def loolu lay def that's the truth xam naa ne it's easy said than done yomb na pour nga wax ko ba def ko yombul soo meree surtout nga jógee ci askan wax ne suñ meree dóor soo meree it's very easy pour nga dóor ya but jos di fàttali pour ñu bàyyi xel ci mer di dóor baaxut mer di yuuxu baaxut mer di dóor baaxut xale bi su ko jàngee pare na bu ko defee ci school benn yoon rek pare na dañ koy xooxee ne xale bi noonu la mel ku ko tooñ sax ñu ne xale bi moo tooñ nga gàddu ko àq just because yaa ko yaree noonu su magee saa may jëkkër noonu la saa may jabar noonu liggéeykaay noonu fu mu jëm noonu du mën a xam nu muy contrôler tempam saa wu meree rek yuuxu wala wone ko hmm. soo nañ leen bàyyi loo xale su ñu merloxee dafay yomb trop pour ñu yuuxu wala dóoru walla def dara boo nañ bàyyi xel damage bi loolu di def moo ëpp li xale bi def tey bañ mer damage bi loolu di def si xale bi ak ëllëgam moo ëpp xale bi lu def tey ba nga mer xaw ma kii lu muy wut leen rek gune góor yi nag dafañ si butu ñëw ñu bëri nag bala ma ñëw ñu lay yelay yi naan man la ñuy takk yéen man duuma seen morom te yéen ñoo bëgg a takk yéen ñu bari seen baay laa wax naa leen ko ngeen foog ne may comédie yéen ñu bari seen baay laa ndax yéen ñu bari ngeen a mën a fen naqadi deret xame jikko ju bona bona bona bona bon joxane bu ngeen ma takkee ñaari fan du ko am te man bu leen ma gis may yuuxu suma téléphone bi suma vidéo yi ak suma askande man melu ma ni yéen du may fen du may ne di naqadi dara si ni ku ma nopp di naqadi dara si ngelaw mel ni ko dof may ne di neexal borom di ko jaamu aka di ko wax dëgg te mënu leen lool te yéen laalante sax mënu leen ko ngeen a soxot bon su ngeen di laalante ni ganaar gu si tëb ci peelu si jigéen ji rek seet leen neex yéen da ngeen de ko du ngeen seet moom lu ko neex te man du may laalante noon mais seet góor gi lu ko neex yi noonu jos ngeen a xame jikko yu bon yoo xam ne du mën a dem ak man yéen yu bari ñëw ma bëgg a takk xam ngeen seen bopp toogi leen nag te ba ma nag suma àq moo leen di dara wax naa leen ko nag tàppoote leen vidéo bi rek te focus jigéen ñi bari nañ maa ci gën a tuuti tàppoote leen rek te focus waa allo <laughs> wax naa dëgg <laughs> Omar ñii du ma am jàmm fu mu wicc ñu ne man la ñuy takk te buñ ma takkee ñaari fan du ko am <laughs> man bu leen ma gis nii maa kaawoot du ko nang sax ngeen sonal ma ñaari fan ma ci peelu dindee ko ci peelu pële su ko defee ñu ne Ami manta sey ni ñi di ma xas te fekk yéen a def li tax te fekk leer na leen yéen a ko def waaye du ngeen ko wax de ngeen di wax ne oh, moom kay mënta sey gisoo ko sëy yu bëri yim sëy yëpp moo tax nangam a nangam te fekk is nothing to do with that yow yaa def li tax ma daw ngeen kàddu suma àq na nit ñi di ma xas yi noonu balaa ci ba leen ma rek mbooleen ku ma bëgg a takk te jikko ju bon wala jikko joo xam ne du mën a dem ak man xam nga ni ma mel nga suma vidéo yi xam nga suma jikko man kuy seetaan sama vidéo yi xam nga ma parce que sama vidéo yi lu ma man mel laay wane sama vidéo yi ku koy seetaan ku ne xam nga ma yaa ma gën a xam ku ne mbooleem kuy seetaan sama vidéo yi yaa ma gën a xam ku ne ci àddina sama vidéo yi laa illaa mbooleem ku koy seetaan nga ma xam ba mastama nga gis ko pare nag ñëw ne man ngay takk te xamee jikko yi may bañ yëpp su ma xaq bu la dalee du la jig tapote leen rek ma foo ko si li may so guys ku bëgg mën ngaa dugg boot lu ma bëgg ñu focus mooy ñaar yi Afrique ak jos xarit ak jos dimbale nit ak in general ye te nit ñi di la bitree ak nooy def ba jàpp si yàlla no mata wat nooy def ba bul nekk ni ku soxor because of that but nga jàng si you know ba pare yow sa bopp boo xamee jabar wala doom wala jëkkër wala ay hope ne doo dóor jëkkër <laughs> xanaa nga am jëkkër ji ni aadamoo nga mën koo dóor anyway normal jëkkër doo ko mën a dóor si bëri moom mu lay ëpp doole so jëkkër I don't have to count that but am na jigéen ñi dóor seen jëkkër I guess but dóor jabar moo jabar doom wala beneen xale boo yar wala di ko jàngal école bu leen ne di dóor xale yeeg a yuuxu seen ka ah! ak a di leen dóor am telling you ku mel noonu fajul ngaa feebar parce que gune gi mënoo koo door ba mu bàyyi di def mistake gune la mag sax fay def mistake wax malaa la gune léegi yow mi koy dóor sax yaa ngi def séeg yu bari te yàlla newul di la mbéj tàppatee rek léegi ngay naxanteeg moom defal sa bopp nit gune gi soo di ko dóor trop fay tax mu gën a am yeneen jikko yu bon ba raw li tax di ko dóor yoo xam ne dóor yu moo ko créé te ëllëg bu magee la jikko yu di génn waaye lu si bëri balaa mag sax ya tàppatale la léegi gune yi ngeen di dóor surtout Afrique gune yi ngeen di dóor di leen toroxal a pare di leen jay ba gune yi nekk xeexkat defantekat ngeen di leen tàccul ndax yéen wér ngeen yow diw rek ami rek faatu rek astu rek xool ko gu ne nga naan waaw man nangam eh nangam nii ki naa eh, nii ngay tàccul gu ne ga di ko tàccul ci kàmb gi ko gasal di ko tàccul muy waaxoy dugg gune gi ngay tàccul pour mu nekk nit ku saavej ta sañ ta mën a xuloo mën a mën a saaga su magee di taltali saaga ndey ak a xeex ak a xaaw gune gi war a def boppam nit am jëkkër toog si loolu focus si façon jikko ji nga koy yare noonu ndax gune gi yaay ennemi wala lan yéen su fekkee ngeen a mën a defante ni Amie Jobe ba confis dof bi ko ngeen a traumatise ba confis dof ni man ak yéen ñëpp léegi waaye ngeen di promote gune yi pour ñu mel noon may laajte rek tàppote leen ngeen a xañaane gune yi pour ñu am àdduna bu normal walla ngeen a dof walla musiba may laajte rek waaye lu tax nga bëgg gune gi mel ni yow ba raw la loolu rek laay laajte waaye parce que xam nga ne yow ni nga mel normalu fii ku fi mel noo xam ne nga nga traumatise te confis dof xam nga ko waaye nga bëgg gune gi mel noonu nga koy tàccul ci loolu loolu rek laay laajte gune góor itam ngeen di leen tàccul ñuy fecc di jëngal digg ka fecc def yëfi jigéen aka maquillé ka wax waxi jigéen eh, nga di ko tàccul mo yow loo mel ni góor jigéen mo yow kii nu mel eh, di ko jay bàyyi leen gune yi ngeen di jay si musiba dee leen kar gune yi ndànk di wax ak ñoom di def ak ñoom mbiri góor kële ngay def ak moom mbiri jigéen you know soo xamul doom sax wala nga xam doom waaye gis nga geneen gune góor si koñ bi wala sa mbokk la xëcc ko ci mbiri góor maanaam ay football ay liggéey góor ay waxi góor ay manière góor gune yi da leen giseen ni yéen leen jut yow soo dee góor gu baax soo gisee gune nga di koy yedd di nekk friendly si moom bam ñeme la wala muy lor mu mën di la bàyyi xel di roy si yow baleen gune yi ngeen wane suma yoon néew si gune yi yëpp bu ñu xal ko sa doom yi fa ñuy xal ko sa doom bopp yi xal ko sa doom mbokk yi ko do you not understand that gune yi si askan bi lañ ne di nokki ak benn keri mango gi ak sa doom yi benn koñ bi benn dëkk bi benn town bi gune yeneen gune yi bu ñu xal ko yow sa doom yi danañ xal ko wala sa doomi yi doom yi xal ko wala sa doom yi rak wala sa doom yi mag xal ko why you don't know that yéen lu tax ngeen mel ni ko xamul lool gune askan bi suñ xal ko xaaw nga fo ne sa doom yi yow duñ ci bokk moo ma jaaxal loolu de moo may jaaxal lu tax ngeen di wax ne su ma yoon néew si <laughs> ni ñoo ca China sax ba fa corona amee corona fa ñëw ba fekk ma suma lal <laughs> gune askan bi suñ nekkee ay góor jigéen jigéen jigéen ak di di di agressé nit ñi jikko ji bon ji gune xamee lu ne yow sa doom fa koy xam wala sa doomi mbokk wala sa doomi doom sa doomi mag sa doomi rek waaye you guys ngeen mel ni ko xamul lool come on may laajte rek tampote leen rek léegi yow boo du duxee góor gu baax te def sa bopp nit te bokkee si bokkoo si mbiri góor jigéen ak stupid stuff soo gisee gune koñ bi ndeel neex deret si ñoom ñu ñeme la ñuy roy ci yow nijaay diw tontoo diw you know nangam I don't know just neex deret reexal leen friendly si ñoom léeg-léeg sax nga may leen tuuti xaalis boo leen rombee encourage leen booy diw mbala nga ne ko booy mu ne la naam waaw yéen si jàmm xaw ma naka naka you know nekk leen jàmbaar de góorgóorlu leen de xaduna si léegi fa bëri lu bon waaye yéen na ngeen gëm seen bopp rek incha allah da ngeen xam xaduna bu baax su ngeen magee loolu rek mën naa wecc ci xaduna gune yoo xam ne yaa ngi fekk ñuy naan warga te xamoo leen surtout nga dëkk ci koñ bi wala dara you know just gune yi ngeen di xool oo I don't know gune googu moo koy yëg gune googu mën na laa jàmpaaka la agressé la agressé sa doom wala sa mbokk because xaalku na te mën ngaa wax léegi rek effing you know bugguma saaga <laughs> mën ngaa xubbi sa gémmiñ gi wala nga def benn act of kindness lu baax rek lu wecci xaduna gune goog te mu séef sa xaduna yow séef sa mbokk gune yooyu mooy ñi leen di jàmpaaka yéen ndax ndax xamu leen ne gune yi ngeen di romb naan su ma yoon néew si seen doomi mag yeeg doomi rakk yeeg gune askan bi ngeen di sàggane rek xamu leen ne gune yooyu ñoo ëlbatiku di leen jàmpaaka ak a jam seen mbokk yi paaka bi ko sax téléphone wala stupid stuff waaye lu tax xam ngeen mel ni ko xamul loolu moo ma jaaxal ndax gune yi leen di jam paaka ay ay seen waa lañ China lañ jógee wala lan definitely true thank you they know this but they just insane léegi isara ngeen di focus yéen góori askan bi ku dee boppam nit laa wax yéen ñi ci des yéen yenn yenn ñi ci des te newu leen ay góor jigéen ak stupid stuff yéen ngi focus si liggéey yàlla njaboot you may yeneen nit ñi xaalis aka di leen kool di wax ak ñoom jël leen seen time bi ngeen motiver gune yi léegi balaa askan wi gën a yàqu far ñun ñëpp ñu dee ñu ñëpp jóg askan wi askan wi fi dafa mel ni tabax buy daanu ndax xamu nu ma koy waxee na tabax buy daanu sax daw raw ko war a kar bu dee danga ko mën a kar capté ko <laughs> bu laalee suuf ñu dee <laughs> ñun ñëpp nañ gaaw capté ko man kenn rek mënumaa def liggéey bi de léegi yow su fekkee ne yaa ngi dëkk ak ay gune si koñ bi ba leen xel soo gisee gune di toog di campé di tuxaka naan def lu bon jéem leen a motiver tuuti buy jigéen nga man su ma demee su ma suma holiday yëpp motiver laa koy def laajal nit ñi saa ma gisee gune góor yi war ga ma ñoo taxaw waa na ngeen def gune góor yi fañ may seetaan bu dee may fen waa xam nit ñi ma xam fañ seetaan albe ñaari albe ataaya la gune yi ne waaw mooy leen ha oytu leen de bu leen foog ne tam bitim réew moo xamee yëpp ba tax ngeen di dugg gaal di dee ñu ne ma ah lu tax nga wax leen bi ko bitim réew nangam nangam di wax réalité li you know fii sax su ngeen gëmee seen bopp da ngeen barke man su ma xamoon lu ma xam tey du dem te das da turut soo demee foofu sa mbokk yi di la mere ñëpp yaakaaree la te doo mën a jox ñëpp nangam ak nangam di explain yéen bu leen dugg ci ay tux bu leen dugg ci ay naan bu leen dugg ci ay xalku def leen nii def naa def naa gëm leen seen bopp waaye nag bu ngeen buggee tukkiit bum leen jaral dee na ngeen ñëw waaye na ngeen ñëw si yoon wu leer nangam nangam te xamal ne tukki taxut a xam xalal soo ñëwee it ngay jàng gëm sa bopp gi ngay bañ a def nii soo ñëwee taay mu ngi fa sàngara mu fa laalante ko warta laalante mu ngi fa sàcc mu fa lu bon lu ne mu ngi fa njaaloo mu ngi fa feebar mu ngi fa dee mu fa li ngay bañ fii mooy gëm sa bopp xëy jàng métier xëy liggéey soo demee foofu ngay fekk loolu nag mu toog di la xaar ci sedd bi ak ci biir tubaab yi bañ nit nga war a jàng métier si biir loolu nag li ngay bañ di xëy juróomi waxtu xeexu jàngi wala ja wala liggéey ci liggéey bu bon li ngay bañ fii ci ker Mango gi mu tàngoor neex ba dee ngay doo ko def moom ngay def ci digg sedd bi ci digg galaas gi ci biir nit ñu bañ nit ku ñuul nag nga war ko def by force just di leen wax reality you know di leen motivate bul dem rek di solu yee maan booy dëkk bi mu amul dara ba léegi maan jëndal gune yi taay jëndal leen ataaya yaay ennemi gune yi booy def loolu maan the hell maan yéen criminal yi dem Afrique waru leen xon a xam visa waru leen xon xam eh, dem Afrique ngeen war na toog fii rek di xaal ko fii ànd ak tubaab bi xaal ko yeeg yeneen nit ñu xaal ko yi waaye ngeen di dem Afrique di jëndal gu nay taaya ka jëndal gu nay cigarette ka toog di naan ak ñoom ak tux ak ñoom ak tëdd ak ñoom ak lu ne nga di ko def décembre baa ngi ñëw danaa leen defal vidéo ngeen def seen bopp nit ñi ngeen di soxot gi nga Afrique boo fa demee boo mënee dem ci school yi man bu ma demee nii sax danaa ko lijjanti boo leen xam school boo xam ne surtout school yu mag yi high school te nga xam xee teacher boole maag moom maa bugg a dem si high school yi motiver gune yi assemblée or something demal ci school yi motiver gune yi demal ci koñ boo gisee gune yi toog di waxtaan nga motiver leen sa doomi mbokk yi motiver leen bul di dem jënd yu seer wonewu mel ni millionnaire bu soxot ta dof bi ko millionnaire boo xam ne nit la mu ngi dem Afrique te xam na ne dëkk ba xamul su fa jógeewut sax fa leen di yërëm ba tax mu wàññi li muy sol li muy jënd buy dem te xam ne dew ma ci ay milliardaire dew ma Dubaay ne Dubaay sax ñëpp xamuñ tàppate leen rek waaye ñun nit ku ñëw surtout Gambien yi fa ñuy dem Afrique ni kuy dem xaajana ni kuy dem si beauty competition maanaam competition yi ku gën a rafet ku gën a seer yére ñu dem fekk gu ne toog ca kër mango ga nag stress ba bugg dee gune yi nga xam ne fañ leen dóor traumatise leen ñi leen ñu làmbatu ba gune yi xam different depression nga ñëw nag fataa nga sol ñëli sol ay fake or ñëli sol real or ñëli jënd baag yu seer yoo xam ne la ñëli jënd fake dëkk bi ba léegi Adama Barrow defaru ko Afrika ba léegi dara ceeñul Afrika moo alko Afrika moo ñaaka xëy tubaab yi raw nañ ñu xool leen lii rek barki salaatu fatiye gars yi xam nañoo xam ne fa ñuy dem Afrique xool ma ma sonn nii de ma doon daw ak exercice amin ma doon dox ak exercice pare mu ñëwee ba tey noppaliku ma <clears throat> fay xam ñu dem Afrique toog xool mbedd xool Afrique nii nit ñi wër leen ñuy wax nu ma la wax nii billahi wallahi tallahi te gannaaw buñ ko waxee pare du njog ne yi ticket bu ñu ñëw ba ñuy seetaan gune yi nag lu bon luñ def ba ñëw ñoo xam buñ jamee nit paaka agressé ko ñoo xam buñ sëyeeg màggati tubaab wala màggati nit ku ñu wala kuñ bugut ñoo xam buñ dee ci géej gi ñoo xam anything anything ñoo xam waaye fañ leen di motiver pour ñu ñëw waaye force ngir soxot xoolal réew yi wala dëkka bi xoolal réew bi ne réew bi sax du waxee Gambien de xoolal xoolal dëkka bi Adama Barrow liggéey fii dara xoolal dëkka bi xoolal mbeeda yi xoolal lii xoolal lele dëgg la kenn waxul ne soo waree xas nguur gi wax leen ñu liggéey bu ko def waaye toog ci kër mango gi di xultu foo tollu xultu ak waa Afrique waa Afrique xam nañ ne Afrique développé léegi yow li nga leen koy wax ni lu leen di jëriñ pour ñaawal leen woon leen ne suma ma waxee lii pare dugg ticket dem wala lan amin jël suma ticket dem wala lan just what's the point thank you tapote leen rek te see rek soo téyee téléphone bi nii bës ko fa indi sa xarit yëpp nga def ni tig tig tig rek yónnee leen ko xam naa ne mi ngi leen yónnee vidéo bu baax yi noo bot man du duma bàyyi di wax vidéo yu ñuy jariñ xalaatuma ko sax say boo suma koy benn di ma seetaan man duma wax vidéo boo xam ne jëriñut ñu say boo junni nit di ñu seetaan may wax lu ñuy jëriñut wala lu ñuy yàq wala luy tax ñu gën a torox mais promo loolu junni nit di ma seetaan kon man ak junni nit de yëpp duñ xeexu man yàlla na ma rey keroog man amee yéen bu leen yàlla reytee xam nga lu tax man du ma promote loo xam ne fay sonnal nit si askan bi surtout groupe bi nit su fekkee lu ma fi fekk la sax lu baaxut su ma ko mënta ko dem may sotop waaye duma si wax just because you know nit ñi loolu lañ bëgg dégg pour nit ñi ñëw su may dee du ma yóbbaa nit ñi may seetaan nit ñi kenn te su boobaa li nga fi ba fay toroxal nit ñi boo dee sa torotaane nga fekk la sa bàmmeel so waaye ngay wax pour nit ñi su neexee yàlla du ma yeewu suba du understand bu neexee yàlla ak li ngeen may bañ yëpp bu neexee yàlla ma yàlla ne ami deena suba ngeen naan o nangam nangam commencé dem suma vidéo yi di seetaan nag su boobaa so man loolu laa xam moo tax du may seet xaalis wala ko mere wala nangam may seet lu baax si ñun rek mais ni ko dof ngeen fa ne maa def maa leen gën a wér fuuf is jos yéen faalewu leen ñun lu ñu toroxal te man loolu nag lu ñu toroxal nag jaral na ma wax si ba sama bopp bi toj <coughs> am na solo it's not about am solo or not but ñun ñëpp xam nañ lu am solo ñoo ko du def come on yeah ndox sax boo ko naanu xam nga ne ndox am na solo yoo la neex doo ko naan ya ñun kenn deful ñooy dof doflu rek xaw ma lu tax ñuy dof doflu nag fu may xéem ak ñun niñ xal koo ta feebar ta ñàkk ta am problème ñu continuer di dof doflu mais ni ñu wérul rek my sister you never die <laughs> loolu du tax nga dee but anyway ragaluma dee man yee ma gëm ne suma waxtu duma ko romb but wax naa bu neexoon yàlla duma yeew suba nangam loolu du tax nga dee sa waxtu bu jotee rek ngay dee ñun loolu faale wuñ ko fañ mag suñ yaay naan jox ma lii ma ñëw ñu suuli la billahi yaa bon ma ñëw nga dee ñun loolu du dara si ñun <laughs> you loolu du dara si ñun nañ la walla ma ñëw fekk la fi ngay den nangam dee nga walla <laughs> wa yéen yéen a dee ragal lool su nit waxee loolu ah, mais ni ko gëmul yàlla ree moom may jàpp si loolu ñun faale wuñ loolu sax ñun loolu la ñuy xëyandoo wax su booba jant sax waaye duñuy saaga ndey nag you know bot loolu nga mag dégg sa waajur di ko wax saraki yaay yeeg ñëpp di ko wax loolu dara si ñun you know <tsk> nañ ma bot focus si li tax ma ñëw li tax ma ñëw mooy dóor xale ak yen know nit ñi ba góor ñu cagañi te wig fuñ toll fuñ tolli laalante ni béewu si butu nañ des seen boppu nit te tëj seen tube yi te toog ku xam góor yaagu correct ku xam góor yaagu ndaw doo seen maata jàppa si yàlla tëj sa tube ji te toog ok good léegi focus leen moo waxal leen léegi góor goo xam ne fa am jabar di njaaloo ñaari zip la war a def nag tëj tubéyam ji ñaari yoon sol tubéy bu ndaw si biir tëj ko ak beneen bu mag bi ba pare su ko mënee karnaar mu karnaar ko surtout bu fekkee dafa wik te bugg la yomb te dund métit you know ba tax muy ciis bànneexi laalante jos feebar ok na tëj tubéyam ji ñaari yoon ok koo xam ne jabatam ba tey na ko tëj léegi bu kenn laalante ak kenn kum takkut ko xam ne fu mu jaar fay wax ne fay laalante by na sol kondom te su fekkee góor góor gi fa rëy na sol ñaari kondom su fekkee góor yaa gi fa sew boobu ba nga xam kondom bi fay rocceeku na sol kondom bu ndaw a ndaw a ndaw wala mu takk ko ak fendi wala mu sol ñaari kondom <clears throat> ba pare nag xam ne fóonanteeg nit wala ma caaw rey nit nga ciy jëlee feebar ba tey bu nit ki biiru sax jos mu xam loolu bi ko deret tëflit deret la ok it's better jos bu mu jege kenn bot ok so focus li ma doon wax so ko xam ne jigéen nga tam di same góor ñi bu nekk di njaalo jigéen ñi du njaaloo sax anyway because xanaa jigéen ñi tëdd ñoom kenn jigéen i muus yi nga xam ne ñoom ñoom kenn fa ñuy tëdd ñoomu neen kenn ku ne di mel ni muus mu si butu yàlla yàlla ñi that's another story ñoom tam du tere ñu am seen feebar du tere ñu am réccu ak yërëm seen bopp ak jos toskari ak naqadi deret ak yërëm seen bopp ak féeg bànneex bi ñuy def du ko askan wi duñ nangu lool ko mos a nangu yàlla sax nangu ko moo tax mu mu def sa sa baay xànd ba nga juddu you know but anyway jigéen ñi mel noonu tam nañ def seen bopp nit góor guy juutu wala juutal nit ñi na def boppam nit bu kenn def benn nonsense just kenn ku ne straight ok good so baag si dóor um, gune yi ma doon wax léegi gune yi su fekkee ne ñu ngi lay merloo te nga miin suñ la merloo yi nga dóor wala nga yuuxu gune gi su miinee saawo saawu defee lu watare nga ko war a dóor wala nga yuuxu fay foog ne yow soo ko dóor wala nga yuuxu rek yow meroo mooy ne wala mooy ne lu mu def bonut te su boobaa rey nga ko te yàqal nga ko àdduna because ëllëg soo amee jëkkër wala jabar sax lum def feeg jabar ji yuuxu disrespect ko wala jabar ji dóor ko bu ko mënee dóor wala ponis ko ponis yu jéggi daye du ko ba fay foog ne jabar ji merut because loolu la mel buy jigéen tam ëllëg lum def feeg jëkkëram dóoru ko fay foog ne jëkkëram merut feeg jëkkëram yuuxuwut fay foog ne jëkkëram merut feeg jëkkëram yabut ko disrespect ko yuuxu ko comme ko yuuxu xaj fay wax ne jëkkëram merut wala lum def garaawut tàppote leen rek thank you so much tàppote leen te seddoo soo téye téléphone bi nii da nga gis sa clifé ni yëpp sa fa followers yi yëpp nga def ndef nii nga jox leen vidéo bi nga tàppate vidéo bi yow li ma yàx bu la soxalutit dana xam keneen comme soxal fa xam ni ñoo xam ne nit lañ doosi sin mata kuy wax kan la na wax lu leen jëriñ rek parce que dañ fonk seen bopp te wér nit ñi fa ñuy jënd bug sax di ko riit pour jëriñ si duut ñëpp ñoo mel ni yow nga xam ne luñ dégg lu baax seen yuur gi met bi ko yuur gi fa traumatay te dund métti ta xëm si biir ba nga xam lu bon rek mooy dugg fi ne lu baax du dugg fay ala jég si lu baax buy dégg lu baax daw du ñëpp ñoo mel ni yow noonu de léegi yow nga koy séddale bi ko ñeneen ñi koy dégg danañ ko use bu dul yow sax su ko defee nga xam si tiyaaba ji ya ah. mu gën nga xoole rek mel ni hunko dee te fekk yaa ngi dund allo <laughs> tapote leen rek <laughs> léegi bugguma vidéo bi yàgg sax maa bugguma am pour la fayda bi dama ko bugg a post YouTube after incha allah you know pour nit ñi foofu tax xam na ñoo xam ne nekkuñ fii dañ ma dee seetaan foofu. yow li tax nga war a bàyyi soo meree rek dóor gune gi and going crazy and just yuuxu muy góor wala jigéen mooy number one gune gi du foog ne nga koy def noonu because nga bëgg mu baax fay foog ne nga koo bañ wala nga xamee life problem nga xamee naqat di ko sotti si moom. fa koy xam waaye du la ko mën a wax yu noonu surtout gune léegi dañuy am xam-xam xam nañ kuy gaaw a mer ne fa am naqat wala jos koo xam ne daf dee overreact yu noonu so exactly what you gonna do now léegi ni ngay def mooy gune gi tamit su fekkee ne moom dafa miin ngay yuuxu si kawam wala nga di ko dóor te nga ne yow doo wecc nit kenn motut fu jaar ngay jàng jikko yu baax di ko yuus bul wax ne rek beating children constantly has a huge impact waaw to their growth and development waaw baaxut léegi gune gi su fekkee ne góor la su miinee nga di ko duur su defee dara lu mu watare nga duur ko comme Afrique ni ñuy def fii sax ni ñëpp ngi koy def noonu duur yu jéggi dayoo yooyu ok yaa ngi woon gune gi ne ko tàppate leen de bu leen a baxee liggéey man kenn may wax ngeen di xoolale yéen a ngi amee seen baaraam yi suma loxo bi su nga bee téléphone bi seen baaraam yi mu ngi nekk mën a dimbali waaye mu ngi seetaan di yuuf suma énergie bi rek te du ngeen donné du ngeen seddoo du ngeen lifin I don't mind suma xàq dana leen dal bot loo taxul may wax de boo àllaaxiraa ngeen jox ma xàq jooju yëpp that's fine bot nit ñi nga xam ne ñoom ñoo war a gis vidéo bi jëriñoo ko man kenn ni sax ko jëriñoo danaa kontaan yéen léegi yow su fekkee danga ko jëriñoo xamal ne keneen dana ko jëriñoo fekkee doo ko jëriñoo xamal ne keneen mën na koo jëriñoo to wa maag yow ñu seedoo tiyaaba ji it's not about ami bëgg naa ko wala bëgguma ko no one cares I don't care nga bëgguma or not loolu du tere ma dee tere ma day du tere ma seven you know just loolu duma ma wàññi dara yow mënoo maa loof ba tere lu ma war a dal dal ma yeah so doo seen moo tax nga ma or not man néew ma sama vidéo di wut ku ma loof yeah man maa ne ngéej rek you know man ma gëm sama bopp ba protect sama bopp leen maa lor ba ma am jàmm li may jox jàmm mooy ma gëm sama bopp protect sama gis loo xam ne baaxul si man ma moytu ko do you understand that loolu man maa ko mën a def nothing to do it ku ma wala xaalis wala stupid stuff moo tax I don't care about that nekku ne faalewuma nit ñi de jos ma dul jaamu nit ñi pour ñu love ma you know jos lu ñu jëriñ rek moo fi indi moo tax mu bi téléphone bi di fay internet bi ak a jënd téléphone di wax nekkul pour nit ñi love ma mel ni man love ma sama déedéet pour lu ñu jëriñ ba su ma deexoon ni nga topp ko nga xam jàmm tiyaaba ji fekk ma si bàmmeel ok also yow nga xam jàmm ok so léegi ñun ñi fekkee nga daan dóor doom bul wori jos baal su fekkee doom yi xas nga leen ba dóor bañ màgg is too <laughs> bul feel bad am not talking pour nga feel bad ne wuu <laughs> ma daan dóor doom kon yaay bu bon la <laughs> non I'm not saying that already door nga doomi is, is already late you can't do nothing about that but it's not like just because door nga doomi léegi kenn du wax it's not like for example man su ma waxee su ma yaalu ma daan door moo tax ma wax wala nangam nangam wala su ma nee baal yuuxu yëpp yi ngay def si gune yi sax man you know ay xat si gannaaw man mi ma daan yuuxu si gune yi you know even su ma doomi nekku ne ma leen a door ba dooru ma leen door yu bon you know like waaye mus naa lena a door door yu xem nii you know like ndànk nii you wala like door ndànk nii like but normally du ma leen di mbéj sax and stuff but you know woon rek <coughs> because dañ la dee drive not surtout balaa ma doon xam xam-xam bu ma xam nii man mi melu woon nii maa jàng xam-xam ba xam ko moo tax may wax ak yéen because xam naa ne yéen ñu bëri du ngeen dem di lijjanti xam-xam bu ma xam ni yéen ñu bëri xamu leen lu du nekk si téléphone di wax wala seetaan théâtre wala togg suppu kànja wala laalanteeg sa jëkkër soo xamee jëkkër yi noonu su fekkee jëkkër ji dina la laal kay ko jëkkër ju bon du la laal sax wala du la laal laal bu correct su yàggee nga xaye ko sa bopp andeen mu mer that's another story <coughs> but ni ngay def mooy su fekkee nga doon duur gune yi te gune yi léegi màgg nañ it's too late and everything just bàyyi leen stule too late and everything just that's it gune yi xam nañ ne xamoo ko woon ñun ñu bëri duñ daan waxee ni you know like bu yàgg ay fukki at si gannaaw kenn nekkutoon di wax mbiri dóor gune ni you know so don't worry it's fine léegi nu ngay def mooy su fekkee nga leen daan dóor te gune yi ñu ngi nekk gune ba tey wala ñu nga xaw a te ba tey yaa ngi leen di dóor wala yaa ngi am sa mayin bu ne suñ defee yéen yi ma dóor bu ko def xam man suma doom yi nu leen dee def ak ñoom ba tey ba tey jii nu def ak ñoom mooy su ngeen déglu ngeen nekk di def lu dëgër bopp ma wax ba nu ngeen bañ maanaam dugg si yu bon daal mais ñibbi Afrique dafa ñuy ñibbi su ngeen bëgg tee dem ngeen di toog si nguur gi man ma dem man loolu laay wax sama doom yi jaaraan te bëgguñ loolu because yow yaa war a def nag ba gune yi buñ bëgg loolu yaa war a def sa digganteeg ñoom ba gune soo waree ñibbi tey ba leen si nguur gi tam leer leen ne nga koy def rek ñu lànk because loof nañ la te miin nañ la yow yaa war a def loolu nu ngay defee loolu mooy nga di leen wax dëgg di leen loof di leen respect waaye su fekkee nga leen di toroxal dañ la ne <laughs> fa ñuy kontaan sax nga jox leen si nguur gi fa ñuy wax ne ah, kañ ngay dem <laughs> that's another story eh so dafa des yow sa digganteeg sa doomi lan la waxuma la nga tëb wax sa doomi loolu su fekkee xamoo ak ñoom jàmm fañ lay wax ne bye so meeg soo ne nga xam ak ñoom jàmm bala ngaa yegg ak ñoom foofu but man technique boobu laay use waxuma nga use ko de but def naa ko ñaari yoon ak suma gune yi surtout Fatou but aadi duy def yenn yi aadi moom lekk rek ngay am ak moom problème because moom moo mën a xem bugg lekk léegi sax mu ngi wàññi wo soo jëndee ay juice ay cheese ay lekk yu bon yu mbugg si néeg bi daf koy abuse you know like te xamul yaram nag but yafa njool xam jëmm masàlla you know mm-hmm. soo but léegi mu ngi xala kaam nu muy gën a magee ni ma di ko waxal tam bot faatu moom faalewut lekk bu bëri yee faatu moom boobu jigéen la te school bi fii léeg-léeg yeneen gune jigéen yi xam yeneen jikko bugg bugg laa xëcc sa yaay fay xeex ak yow ya soo xam ne si ñaari ñaari defante ñaari yoon defante yu mag mhm. man lu ma def rek mooy kool néeg bi ne borom néeg bi ne ne compagnie bi si kanam gune ne compagnie may delloo néeg bi ñu ne ma ah, ma ne waa what happened may leen jos may ñibbi Afrique ah waaw because suma gune yi ñoo tax ma nekk fi bu ñu jàng waaye gune yi newuñ di déglu so moo tax may ñibbi rek benn yoon maa ngi amee suma kër ak bopp Afrique maa ne ci néeg bu ndaw bi mel ni ngunu te suma kër ga ne fa ma amee ay mango tri xamee ay garab yi mango ak sama mbokk yi ne fa soo may ñibbi maa gune yow léegi ma leen a bëgg a wax ne may delloo si caabi ji kañ lay ñëw ñu ne waa ñëwal anytime rek ñëwal ci office bi waaye nga ñoo war a jox notice weer bala ngaa dem ma ne waa bind ko weer from tey li ko dalee tey weer dana fekk ma jënd ticket ba pare ñëw indi caabi ñu ne waa te suma doon yoo xam nañ ma nga fa ne man du ma def loolu wala ñi ma waaye ñi ma def loolu te ñi naa xañi bi te du ma ñëwaat fii I don't care much about fii because fii bu ma balaa ma doon ñëw fii nu ma ko gisee ak nu ma ñëwee ba dund ko du benn léegi ñëw naa ba xam ne fii taxut a xam xalal fii ba tey lu tax nga am xalal mooy nga gëm sa bopp te liggéey te def business wala leneen ak leneen liggéey tubaab bi rek du tax nga am sax surtout booy yónnee Afrique di dimbale ni ñi surtout boo duyee yow kenn amee ay doom te seen baay du la dimbale exactly fii lu tax ngay xam xalal mooy li nga war a def Afrique loo xam ne boo ko defee Afrique xam xalal mooy gëm sa bopp create business gëm sa bopp développe ko te loolu boo ko defee Afrique sa xam xalal te man xalal jaraluma yenn nii nag de I swear to God I know that's weird di nga wax ne ami kon lu tax nga ñëw fii boo xalal jaraluma leen yenn nii <clears throat> tubaab bi ma indi fi fii sax amul dara tas moo nekkoon keneen may toog di xaar tubaab bu xam because man loon liggéey noonu tubaab bi dañ fa dee ñëw ma di leen létt you tamaa ñëw yàgguma fa tom tombeel beneen tubaab bu gën a xam kii xaalis tubaab bi ma indi nii moo bëggoon ñu jaxase ma ak bi gis ma ne fa ma bëgg si saa si ma nangu su ma nekkoon keneen mel ne non xaar ma xaar keneen wala ma dugalante moom ba pare ñëw di topp yeneen borom xaalis yi tey bu may nekk gune am ñaar fukki at ak juróom bot meluma noonu <clears throat> paale xuma xalaat gannaaw tubaab boobu ma sëyee bàyyi gune yi mu di ma toroxal ba sëy bi laa xam beneen tubaab boo xam mooy time boo sama beneen xarit booy waxee ne kaay def kaay ñu def internet déeti nga dem wax ak tubaab yi wax ak nit ñi pour xam jëkkër yi no ma xam fa tubaab bu baax si saa si mu bil ma salon bi si saa si tubaab bi di ma yóbbu shopping jox ma xaalis ne ma demal holiday waaye faale ma xaalis ba ma gisee ne bëggul aadi faatu rek la bëgg ma ne ko lii du dox yàlla ma sant yàlla nag mu nangu xam nga yeneen tubaab yi dañ dee dëgg mu ne wax nga dëgg aadi ni ma koy def baaxut bot mën naa lu ma doon sëy juróom-ñeenti at ma doom moo tax ma ne ko bot faatu tam xale la time boo xale ñu ngi def xale sax fàttalikuñu sax ko yàlla dimbali na ma si loolu <clears throat> time boo xale yi juróomi at sax amuñ ko wala suñ ko amee kon faatu moo ko am loolu year 2012 la waaye daal faatu la bugg bugg aadi te lum taseeg lum lum nekk xale yi bëriwul bot su nekkee xale yi daal fa affaire yi di yuuxu aadee ka tirit aadi different bugg faatu nag ma ne kii lu tax mu bugg faatu lan la te bugg aadi xalal wala bug lu yomb du tax ma sëy ak xale la woon ñeenti xare la ma magee mhm. te is no is turu xam na yeen tubaab yoo xam ne xamuñ góor yaa waaye kooku melutoon noonu subhanallah <laughs> bugg maa yéen nii bo <laughs> is no laay dafa mel ni yeneen góor yi africain yi bo dafa nekk góor góor bu ndaw yee <clears throat> ak te mën a joxe mbugeel nag te man nit góor guy joxe mbugeel rek rey nga ma xam nga tubaab rek di la jox xaalis di la jox mbugeel bot man gëm sama bopp ak ñàkk faale xalal ak ñàkk bugg lu yomb moo tax ma jeexale moom laajal sama xarit yi ma xamoon ak moom dañ may seetaan jàpp ba tey dañ may mere ne ma man maa ñàkk wërsëg maa dof lu tax ma bàyyi ko yàlla dimbale ma mu ne ma waaw man ni may dem àddina naa ko wecc waaye xam naa ne jaaduwul plus duut ne rek duut jullit de fa yàpp suñ diine ji su taxawee di xas diine ji sa kanam fii so waaye ngay sëy koo jos bi ko sa bëgg lu yomb te yow ngaa bëgg a mag jege yàlla ba pare ngay sëy koo xam ne fay taxaw di saaga diine ji ak sa yàpp sa doom ju góor ji su ko defee gune yi safa ñu nekk ennemi suñ gisee ne kii kii kenn ki la bëgg bëggul ma waaye gisoo gune yi nu ñu xamee jaamu duñu xeex nekk benn because xamuñ góor gu ñëw di leen xaajale you know are you married now no a lot of people want me but it's like it's complicated because some of them want to roast me they just want to come in and they're like yes and then some of them even if I want them it's, like they're gonna do certain behavior and like what <laughs> but I will get married when I meet the right person again, inshallah. Don't worry about that. But yeah, guys, you know. suma yaram yi fa sonn because you know waaxu ma def tey te mu ñëw ba tey noppaliku ma démb tam dem daw tuuti waaxu moo tax may def nii mel ni ko bugg te maa tëddoon a nelaw rek ma tëb ñëw kilik téléphone bugg maa nelaw bu cëg kon du nelaw guddi <coughs> bot gis nga su fekkee yaa ngi yar gune yi di leen dóor di leen toroxal ok because ngay focus si li gune yi di def torop mais ni jëkkër ju bon lu muy def jëkkër ju bon fay focus si yow li ngay def torop du focus si moom lu muy def <laughs> sooy nokk sa mu ah, ni ngay nokkee baaxut maa koy dégg nga mel ni Ami Jóob di nokki bu baax take your time si yeah I know right it's complicated I don't want to take too much time like a coward but you know we'll see so su fekkee ne gune yi ngay fuu si ni ñuy def rek waxoon naa la bul teg kaas bi fii nga teg ko fi waxoon naa la nangam waxoon naa la su may wax bu ma tontu waxoon naa la nangam waxoon naa la léegi dëgg sooy wax waruñ laa tontu and stuff but yow ngay seet mu naa xam yow tam yaa ngi tontu gune te yëgoo ko su ko defee ñu jàng ko si yow mun naa xam yow tam su gune di wax benn rek nga tëb wax ba wër leen just because gune leen te gune daf la de miro miro mooy maanaam sa seetu nii so fay seet su fekkee ne yow suy wax nga dagg ko moom tam sooy wax daf lay mun a dagg du xam ne moom warul laa def loo léegi nga koy suy wax nga koy wax ne ko maa ngay wax maa ngi lay maa ngi lay déglu nga wax nu mu demee bu ma lay euh, may respect déglu la nga wax nu mu demee man tam soo paree nga respect ma déglu ma ma wax waaye ñun nag li ñuy ragal mooy fa ñuy fane suñu waxee loolu gune gi fa ñuy yàpp ñu nikkuñu xamoo ne ñu nikkuñu fañ fang ne fañ man a yar doom waaye ñun ñu bari mën nañoo yar doom waxuma ne yeneen tubaab yi ni ñuy def tam nga def ko de di wax gune gi naa bu la neexee nekk góor jigéen ak nangam nangam ak jox gune gi lu mu baax na you know comme conversation mu leen doon wax ne moom laa xam ak aadi bu yàggut nu ma doon waxee ne fii nit ñi dañuy bàyyi seen doom yi ñu bëri jëndal xale bi lu mu bëgg ne xale bi loo def baax na moo tax xale yi duñuy jàng duñuy faale sax aadi wax na ma ko ni mu nekk nekk xale xam na ne fii yeneen nit ñi ni ñu yaree gune baaxut mu ne ma parce que gune gi gune la soo ko ne loo def baax na rek dafay def da wrong thing ba after su magee lay xam ne o ndeke waru moon a def lii fekk it's too late <laughs> ma ne ko exactly <laughs> but xam na yeneen xale yoo xam ne duñ ko gisee noonu mun nañ laa bileem all together rek naan o ngaa naqadi dara nanga nanga but ba tey di dinañ ko gisee noonu yeah man mii Fatou wax na ma ko keroog wax naa ko Fatou wax na ma ne ay xat si gannaaw bi ñu doon léegi laa gis njëriñ li ndax suma morom ñi nga xam ne ñoo daan def lu lu wat luñ wat a def ñëpp ñu léegi ñeneen ñi jàngatu ñeneen ñi biir nañ ñeneen ñi baneñ school man maa si des ak ñeneen ñi doon it ne ko exactly mu ne wata ñoo newuñ di dem université newuñ di ambitious nekk naan maa bugg a nekk lii maa bugg a nekk la ñenn ñi si bëri fañ la wax ne maa bugg defar ay xef wala make up wala nangam waxuma ne loolu baaxul de boo lool kamoon on ñu si mën a barke bëriwul gune yëpp ñoo loolu leen jógal is ah competition bi ne ci loolu ay make up ak stupid stuff but léegi nit ñi also soxla wuñ defarkati make up make up dooy na te make up sax fee joxe feebar ci chemical bi nga siy def loolu mooy dëgg nit ñi luñ soxla léegi ay docteur ingénieur scientist yeneen ak yeneen yuy defar nit ñi yuy develop àddina si not effing make up kenn ku ne make up but anyway <laughs> gune yu bëri ay make up ak ay weex ay yooyu la ñuy wax ne moom def xam university free xam lu ne free te fii xamuñ liggéeykaay fañ soxore xamuñ liggéeykat fii fi ne xamuñ docteur xamuñ teacher xamuñ dara fañ soxore moo tax duñ joxe visa xamuñ dara absolutely nothing biscuit factory paak ñuy paak paketi biscuit yi sax xamuñ ko Angleterre Scotland fi mu ne nii Edinburgh fi xamuñ enough liggéeykaay liggéey mu fi mos a liggéey liggéey yi may liggéey di ko bàyyi bu ma fa dem bu ne ñu ngi wut liggéey mais ñëw fekk ñuy wut liggéeykat ma bàyyi leen fekk ñuy wut liggéeykat <clears throat> <laughs> muy hôtel yeeg palace yi nga xam ne maire yeeg paa fu ne rek hôpital yi waxi noppi uh teacher yi fi mu ne nii sax teacher yi dañ strike right now Angleterre Scotland semaine bi gune jànguñ ba xaajuma xaltine rek lañ jàng ba xaajuma because what because fii teacher yi du ñu bugg a nekk teacher because liñ leen di fay ñu ne matul loolu strike nañ ko bañ yokkal leen seen fay bi tuuti and then léegi ñeneen ñi nga xam ne ñooy strike mooy maanaam ti ti teacher assistant teacher yeeg ñeneen ñi def wàllu technologie bi nga xam ne ñoom tam ñu ngi jàngale waaye newuñ ci classe bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam daal ñoom tamit ñoo bokk ñoom ñëpp ànd ba tax gud jàng bi di dox waaye ñoom strike woon teacher yi rek a léegi léegi ñoom tam ñooy strike semaine bi moo tax jàngaamul pour ñu yokkal leen fay but right now Angleterre teacher yi suma doomi school biñ ne nii high school bi ah, ñu ngi war a xam for exemple ñeneenti classe si semaine bi wala si bés bi ay ñeneenti classe la ñu xam wala juróom different classe te lu classe yooyu noonu benn bu ne fa war a xam ticca am léegi nag ay ñaari ticca la ñu xam wala ñett luy def classe yooyu yëpp duñ xam benn classe bu ne ak ticca am bi ko xamuñ ticca yu mat yeneen ticca yi ñooy war a def liggéey beneen ticca bi te xam nga history ticca dafa xam science ticca xam yeneen ak yeneen xam comme aadi moom dafa bugg a nekk history ticca dafa bugg yëfi ticca yëfi moom kenn mu ne fay dem si ami bi pare ne fay nekk history teacher ñaar yooyu fay dem université pour history boole koog suy wàcc université fay dem si ami bi for exemple léegi for exemple adi su jàngee history ba pare pare ñëw nag di jàngal math di jàngal beneen xale math wala dara because math teacher xamut you see what I mean teacher xamut laaj ko nit ñi Angleterre Scotland Edinburgh ma dëkk nii laaj ko ñu fi dëkk tax xam li may wax teacher xamut liggéeykat yi xamut because seen doom yi duñ jàng duñ def liggéey bu baax comme yow ma ne Afrique toog ne liggéey amul fii ngay jàng université firi liggéey ne xus te seen doom yi bugguñ ko def fa ñuy pare dem di jàng tabax gune góor yi bëri fa pare su ma nijaay tabaxkat la ma dem dimbale ko man may dem def gune jigéen naan may dem defar we may dem YouTube jàng ni ñuy defaree we man sax mun naa defar make up kon na make up artist laay nekk mun naa defar suma weexi bopp yi kon na defarkat yi we laay nekk parce que loolu la ñu gis ne moo gën a yomb su ko defee ñu ne fa ñu bugg a nekk kaay di jànda xaw ma kay di jànda xaw ma effet ni ñi ñuy gis nii how hard it is to be that yéen ñaata millions yi guneef ne yéen a taxaw ne mukk ay kaay di jànda ngeen di nekk ban chance ngeen xam ndax kaay di jànda bu ko àddina si yëpp melee àddina si dana dox bu kaay di jànda feebaree ko koy faj exactly tàppate leen rek soo léegi it's not about fi nga ne it's about yow ban façon nit nga gune yi nga war a naxanteeg ñoom pour ñu mun a focus ndax ñu mun a barke ndax ñu mun a jàng soo nexee di leen dóor di leen toroxal di leen toroma dañuy dépresse suñ dépressé lu si bëri duñ focus duñ jàng fa ñuy dem di tux naan maan def lu leen wat lu ñu watare laalante def lu ñu watare am xarit yu bon soo xeñee la ma waaye because nit ku stress du xam value nit ku stress lu si bëri du ñëpp buy fukki nit ñoo stress juróom-ñetti yéen duñ xamati seen woot duñ xamati seen value duñ xam ñoom ñooy kan stress loolu lay def daf day def doo xam yow yaay kan doo xamati sa woot doo xamati sa value su ko defee nag ngay wàccee sa bopp zéro di def yu bon si yow nga xam ne nag li baaxul si man but it's like doo ko dee tay I don't know tapote leen rek xamu kii lu mu bind nii su ma yoo néew ci li ngay wax taman may ñëw dem tapote leen rek yu xel xawma lan contre madame xawma lan tapoté leen rek léegi ku ñëw fay téye téléphone bi nii danaa def vidéo yooyu sax ngeen am ay follower xam nga vidéo yi ñuy waxee naan follow leen icooda xam naa nuñ koy defee te defoon naa ko bu yàgg ba ko bot danaa si foo ko saat parce que yéen ñu bëri xamu leen enough followers so ngeen di tapoté ngeen di téye téléphone bi nii bës sa baaraam bi di nga gis mu indi la sa followers yëpp su ko defee nga jox leen vidéo waaye danaa ñëw beneen yoon def vidéo ngeen toppate topp su ngeen bëggee ma def loo waxal ma gros akaan vidéo yu na plus may motiver xaale bot su ma commencé motiver rek dootuma grooti akaan <laughs> mais ñëw commencé si góor ñu bon ñeeg askan bi nangam ba par gros akaan bi yëpp yàqu oh my god <laughs> léegi ni ngay def mooy gune gi su fekkee nga ko daan dóor xas nga ba daan ko dóor ba ko léegi léegi nag luy problème bi mooy ko xam ne fa daan dóor gune yi daal te gune yi di ñuy déglu te moom su leen dóoru duñ déglu wala jos yëpp jaxasoo na ma borom bind ma wax ak moom ya dafa am technique booy def ba léegi gune yi dinañ la déglu te doo leen dóor am telling yu gune yi dinañ la déglu waaye nag ku miin dóor gune fay xame si yuuram gune bu leen dóoru gune yi fa ñaal ko fay gëñ si xar quraan ne bu leen dóoru gune yi fa feebar lay nekk loolu rek lay gëm te fekk nit ñi du dóor doom seen doom yee gën a yaru téeméeri fukki junni yoon ñu bëri du ñëpp bot ñu bëri xool ko rek gune yi ñuy dóor tam ñoom ñu bëri ñoo yàqu te yàqu fa bëri façon yàqu rawut nga wik mën a fen di njaaloo di toroxal sa jabar wala yow jigéen ji nga des sa bopp xaj wala yow jigéen ji xamoo sa valeur jos wala nga nekk yaay ju naqadi di te soxot te bon jos yàqu fa bëri façon thank you so gis nga askan bi ñu si bëri fañ leen dóor kolo njëriñ li nag nguur gu baax sax mënuñ ko xam goro bu baax mënu ko xam njëkke lu baax mënu ko xam njëkke ju baax jaba ju baax jafe ba mel ni day moon soo ko xamee sax njëkkee goro yi jog xañaan because bariwut ñoom mënuñ ko xam bëriwut moo ta ñoo ñaane la ko tàppate leen rek mais ñëw dem sax vidéo yi su ma tee benn waxtu <clears throat> soo léegi ni ngay def mooy ngay seet gune gi is not yow ok soo gisee ngay dóor gune gi mooy yow dang dee wax ne gune gi sula la dégluwut <laughs> ah rey nañ ñu Afrique ni ñuy yaree dang dee jël yow sa woot ak sa value yow ki nga do yow li nga do moom ngay jël tëkkale ko gune gi si dégluwut ngay wax ne gune gi si dégluwut mooy ne man duuma dara mooy ne gune gi fa ma yab ta mooy ne fa ma xeeb mooy ne duuma dara loolu ngay jël sa woot ak sa value ak ki nga do moom ngay jël tëkkale ko ak gune gi déglu moom ngay jël dendale ko a gune gi déglu la tapoté leen rek bind leen bu dee may fen mbooleem kuy dóor gune wala dóor jabar wala dóor gune gu muy jàngal wala dóor ku ne néew di ko dóor bi ko koo xamul loolu de wala kook deful lu bugg fokoy koy dóor bi ko kook fa yab moom foko ko xeeb moom moo tax kook dégluwul léegi bu doon kooku fa ko xeeb sax how the hell loolu di ko naqari ba muy xoj kooku moom su fekkee respect na boppam te xam valeur am te xam kem do exactly moo tax nit nga war a xam sa valeur xam li nga do ba mat sëkk ba àdduna si yëpp buñ la doon xeebit nga di leen ree toog di leen seetaane ah really <laughs> ok no problème ne pat te xam li nga xam benn ñaar ngaa war a xam ne gune gi du ne su dégluwut moom yow ya liñ koy wax moo moom fa la gune fay fàtte comme màggat demal jàng buy wër gune nu muy doxee gune fay gaaw a fàtte comme màggat surtout bu dee gune gu ndaw maanaam fukki at ko gune yooyu ngeen di dóor nag bañ seben seen boobu man gis naa kuy dóor gune pour seben la gune goo xam ne juróomi at ko gune guur seben la yaay ji fa ku duur si guddi gi ba gune gi di waaja dee mu yëkkati gune gi ne ne dara bi fóot darab bi si guddi gi gune góor nga jàngal ko métit woow su magee yërëm naa jabaram yërëm naa askan wam ne moo tax gune yëpp di jam nit ñi paaka ngir téléphone it's not because dañ bugg a tukki it's not because dañ bugg a tuxtaay it's because yéen a yàq seen àdduna yéen leen jox unnecessary métit boo xam gune yi soxlawuñ ko the hell man foogoo fañ war a ba jur doom waaye ñuy jur doom ñu nekku ñuul surtout ñu nekku ñuul Afrique ñun ñu bëri fañ war a noppali ku jur doom yaa gën a wax lii gëmu leen ma man sax ñun ñëpp it's not like my the best parent you know just ñun ñëpp foogoo fañ war a noppalu jur doom parce que ñu duune fa ñuy jur doom góor ñu bëri biiral ñu te faale huñ ko faale huñ biiral bi by the way just biiral la comme kuy naan ndax you know soo waxee ñu ne sànni laa gune yi du ne rek ñun ñu bëri loolu la ñuy dund de also fa ñuy jël gune yi di leen dóor di leen traumatise su gune yi demee jàngi sax nga di ko dóor di ko traumatise léegi gune gi su fekkee mu ngi am far sax wala def lu mu de nga di ko dóor tàppate leen rek mbala ma dagg vidéo bi <clears throat> néew ma di wax pour man de may wax pour yéen ñiy yundu wala su ngeen ko soxlawul sax ngeen wax keneen wax ji ma leen di wax ni wax ko keneen mu dégg ko bu leen nekk di wax si téléphone bi di jëw rek ak waxee laalante ak a mel ni ku kon fi dee leen wax lu leen jëriñ seen mbokk yeeg seen xarit yi téléphone. <coughs> léegi gune gi su fekkee fa xam far for exemple wala xam xam jànq wala def lu mu watare ba tànga di ko dóor xalaatal ne ok gune gi gune gi waaye nga koy dóor ne lu tax mu xam far warta xam far bot waaye nga koy dóor si loolu loolu laaj parce que gune gi baayam moo ko dàqa njaaloo baayam mooy njaaloo baayam mooy sëy ba pare di laal ñu ne nit ñi si biti du understand baayam nga war a njëkk a duur ne bàyyi gune yi di xam far ngeen leen duur seen bàyyi ñoom ñu bëri ñooy champion yi laal ku ñu warta laal ndax may fen bind leen rek tàppate leen vidéo bi te séddoo ko rek góor ñu bëri ñoo xam ne ñuy dóor seen doom ñi bi ko sax ñu ngi am far wala yaay ji di dóor doom ji bi ko mu ngi am far te baay ji njaaloo rek mooy liggéeyam gune gi sax xam na ko bàyyi bëri fa ñuy njaaloo ba seen doom yi xam ne sama bàyyi njaalookat la nga ubbil gune gi bunt ne ko tëdd koo wata tëdd is fine is okay koo gis takk is fine suñ waxee nga ne yàllaa ma ko sant te faale woo yàlla bi ko yàlla bi la wax ne loo fal sa jabar yërëm ko loo xam jox ko ko doo ko def ngeen di yuuxu jabar ji naqadi dara ci kawam doo def sax loo xam jox ko jabar ji dara am du mat jox xamoo ak moom jàmm neexoo di jàmm yàlla si jabar ji comme ni la ko yàlla waxee tàppate leen rek surtout yéen góor ñu feebar ñi nga ne yéen a xamee jikko yi may waxaat yi yëpp saa ma ñëwee de leen tapote seen baay laa ngeen a feebar ma leen faj seen docteur laa boo xam ne saa euh, thérapie sax du leen mën a faj seen yuur gi fa kume tama xam ko di ko lokkarte di ko faj jaru ngeen di ma gedd di ma mere daw yàlla xam foo jëm xas nga ba feebar te sa feebar bi nga koy gis bu ma deexoon lim lay def nga koy gis ak li muy def askan wi nga koy gis kon nag jaru ngay mer fi mu ne nii jàppal si yàlla rek te déglu te tapoter vidéo bi rek waaw fi mu ne nii su fekkee ne gune nga koy dóor bi ko fa far gune jigéen warta waaye dóor du ko faj gi nga nit buy def dara loo xam ne war ko def nga xam ko di ko dóor wala di ko ponis loolu du tax mu ba ko def fay wecc ni mu koy defee defee ko beneen fànn boo xam ne doo ko xam yéen lu tax xamu leen loolu moo ma jaaxal ak nit ni muusee gune sax bu nga sondel sondeel beneen yoon bu gisee sondeel dellu gannaaw gune guy raam laa wax de <clears throat> tàppate leen te seddoo rek gune guy raam bu gis bu nga bee sondeel wala mun tayga time Afrique ñuy taxal mun tayga you know <clears throat> by the way Muntayga fay reye fay joxe cancer ak pompe yooyu ngeen di pompe fay reye surtout boo ko nokkee ak pompe yi ngeen di pompe pour néeg bi xëy ndee xëy ne fay reye joxe cancer surtout boo ko nokkee ak cuuraay yi sëxët fay reye joxe cancer boo ko nokkee ak diodine yi ngeen di pompe fay joxe cancer ak yeneen ak yeneen fay joxe cancer joxe feebar that's another video yeah bot suma xel a daj Muntayga ñuy taal Afrique gune di ko téye gune gi bu téyee Muntayga bi sax fay xam ne fa may lakk beneen yoon bu ko séenee taxaw wala jooy gune guy raam laa wax Afrique ndax fàttali ngeen li may wax ni tàppote leen rek jërëjëf Faye de waa si seddoo bi tàppote leen rek te seddoo rek soo téyee téléphone bi nii nga sa xarit yi fa ñuy ñëw ngat seddoo leen ko léegi gune gi su fekkee mu ngi njaaloo sori mu ngi tëdd keneen ku mu a tëdd ok góor wala jigéen su dee baayam moom fay def loo wala yaayam na wax boppam dëgg number one bu mu tëb rek dóor gu ne ah na njëkk a wane wuu man mu bon mi njëkkee lii di ko def di sëy di njaaloo ba suma doom ji xëj na gis ko wala dégg ko wala yàlla na toomali yàlla fa def lii pour ma xam ne lii baaxut tëdd ko wata tëddat baaxut mu wax boppam dëgg googu mu def ba def boppam nit toog tànk ndox naan ba pare jéggalu yàlla ba pare bali mel njëkka bani mel moom foos njëkka jàpp julli ñaar rakka ñaan ne du mës a tëddatee kum wata tëddat ba mu xëy dee su paree nag mu soog a ñëw si gune gi teg ko wax ak gune gi su fekkee lu muy def gune gi yëg na ko te lu si bëri gune gi fa ko yëg bu la ko waxee bu la ko waxul ne yéen ngeen di nekk bay nekk xariti gune geeg nekk ak nit ñi ne ci koñ beeg ku ne ngeen rek nit ñi fa ñuy waxtaan ak wax wala nit ñi gis seen oto bi gaare ci kër nit ñeeg jos nit ñi gis leen you know yéen yéen ñi am oto wala yéen ñiy dox jos nit ñi gis leen mënu leen a nëbbu ci biir nit ñi ngeen ne di tëdd ak nit ñi du you understand mënu ko nëbbu guddi sax foo yolos yolos yi du ko génn nit ñaa ngi lay gis ok tapoté leen te seddoo rek léegi is beeta nga wax gune gi dëgg gune soo ko buggee wecc dëgg nga koy wax dëgg surtout bu fekkee gune goo xam ne la du xuut yenn gune gune xam na fukki at ak juróom jëm kaw dëgg gi koy wax mooy man de surtout bu dee baay ji nga wala yaay ji ndax yenn yi ngay foog ne yow lu ngay dund sa doom ji yëg ko sa doom ji yëg na ko yaayam wax na ko wala baayam wax ko ko wala keneen wax ko ko ci famille bi wala jos mu yëg ko si jàmbur yi wala xam ko si ni nga mel. is better soo nekkee ni kuy wax nga wax ko ne ko man de lii ma koy def waaye léegi mu ne la ha nga ne yow ni nga ko def nii tax na wala lii mas naa koo def waaye ni nga ko def nii tax na ma ba ko mu ne la ha nga ne ko waa léegi laa xam ne lii baaxut mu ne la nga ne ko waa su ko defee nga ne ko man de soo gisee ma def lii ma doon nekk ma woon di ak sa yaay jàmm wala nekk ma woon sa baay jàmm te kële fa may jox bànneex si biti ak wax ju neex ak jos nga xalaat mbiram mu feel good nangam nangam waaye li ma doon def moom du ne yàlla fa ma si mere du ne sa sa yaay bu ko yëgee wala sa yaay ba ko yëgee rus naa wala askani ba ñu ko yëgee rus naa wala sa baay bu ko yëgee wala ba mu ko yëgee rus naa du loolu rek de it's also ne man man naa see jëlee feebar man naa see jëlee biir bu dee yow jigéen ji nga wax ak moom noonu you know man naa see jëlee yeneen ak yeneen gàcce surtout léegi àdduna si léegi si nga xam ne ñu fa ñuy film nit ñi di leen toroxal you know faale wuñ bàkkaar faale wuñ xàq soo nga ne ko léegi man loolu yëpp mënuma ko woon a gis waaye léegi yow bi nga koy def ma xam ne loolu mën na laa dal yow te xéene huma la loolu moo tax ma gis ma bos tapoté leen rek lool mooy number one ni nga war a waxee gune gi bu dee yow njaalookat nga yow yaay ji wala baay ji am telling you this waaye nag loolu góor dëgg ko man ak jàmbaar dëgg ngay foog ne gune gi fa lay yeb te lu si bari gune gi xam na ko yeb na la ba pare ok next step bi su dee bëgg a wax loolu jos waxal gune gi ne ko yow de ni ngay def nii yaa gën lii waxal ak moom yee soo xamee doom ji koy xamoo ne de bind ma danaa la waxal lu ma xam yee because du ma mën a wax yëpp yee dafa xam nooy waxee gune gi nga ànd ak moom dem doxantu waxtaan ak moom is the best ngeen doxantu sooy dox fu wéet di dox ak moom di waxtaan won ko loof wala ngeen dem ci café coffee shop jënd café toog waxtaan wala ngeen dem restaurant jënd lekk toog waxtaan nga wax ak moom sooy wax ak moom bu nekk di ko bileem de naan ko yow kay nga xal ko yow kay nii you know oh my god yow kay naa nga déedéet won ko ne ko gune yu bëri buñ doxee gune fa ñuy dugg ci luñ warta dugg mag ñu bëri defoon nañ luñ warta de bañ doxee gune waaye nag mag ñiy def def lu ñu watare bañ doxee gune lu ci bëri ñu ci bëri si ñoom baxuñ li ñuy def ba tey de fañ wecc niñ koy defee rek tàppote leen rek tàppote leen rek nga won leen ne yenn jikkoy boo ko def nga doxee gune soo magee doo koy bari ngay wecc niñ koy defee because jikko du ne ngay mag rek mu génn sa yuur gi nooy gën a magee fay gën a màgg màgg ak yow ak sa yuur gi nga koy war a ba te bakkoon ak fay métti surtout boo magee ndax boo magee kenn dëtu la xilif doo xamante ni ko la taaj di waxal yow nii man na xam nga mag fekk deena wala fekk jos mag nga du you know di ko def da duma ko yëg sax wala def leneen lu bon bu dul lii sax te xaduna si léegi fa bari lu bon xaduna si léegi ku wik du xam xaduna fa bëri yu bon te bëri façon moo tax nit ñi di deex ak a feebar ak a tëddi ko waxal ko daal waxal ko waxal ko waxal ko woon ko ne ko yow yaa gën lii yow man ngaa am àdduna boo xam ne ku sa nataal te wax la li nga dund woon la nga li ngay dund nii nga koy weddi mbooleem koo gis mu barke fii mën ngaa barke ba raw ko ñooñu gënuñ la te gune nga mën ngaa xam lu ne nit feeg yaa ngi doon gune te gëm sa bopp te focus mën ngaa xam lu ne lii nag xas nga ba tàmbali ko it's fine nit kenn matut waaye ba ko nga start zéro saa woo si buggatee a dem rek waxal ak man danaa la ñaanal saawo si si buggatee dem wala sa xel daj ko <clears throat> tuddal yàlla laa ilaha illallah wala nga tudd you know turi suñu sang bi wala nga nekk di wax astafurlah la just jàngal ko technique bu muy use ba pare won ko ne saa buggee def lii su dee lu muy use la ay drogue ak tux ak yooyu nga won ko ne saawo buggee def lii kool ma wala nga wax ak man ku ko xam doom ji def yen nii daal tam jaxal la bind ma ye incha allah naa la waxal lu ma xam ye yàlla baax na ye bot bul tiit tax nga di ko duur duur yëpp yi fa koy yokk bul tiit tax ngay xaru wala ngay di presse du tax mu ba yenn gune yi seen kilifa yi fa ñuy dee ngir seen jëf yi bon te ba tey duñ ko ba bala yenn yi bu kilifa yi deexee ak xaar attaque ak naqat ñu soog xam ne suma ma yaay dee na ngir ni ma mel mu soog a ba fekk passé na am telling you this doomi léegi ak doom rek in jur nit taxul nga moom ko ngay def li nga man rek tàppate leen rek léegi soo defee li nga man gune gi nanguwut seetaan ko jàpp si yàlla continuer di ñaan di wax li nga man te ba tey ngay nokki di dund di sant yàlla ya what you gonna do just what you gonna do exactly parce que yaay waajur yi muy yaay wala baay lu man mooy dundal la xodd la ak yedd la yedd bi moo ëpp lekk geeg yére yi ak néeg bi yedd gii mu ëpp lekk géeg yére yeeg néeg yeeg lu la mënti jëndal lu ne waaye bi ko yenn gunee duñ koy gisee noonu fañ koy gisee ne jëndal ma lii defal lii defal la yaay naxanteeg moom ba commencé di ko gisee noonu su fekkee nga koy duur di ko ponis nag ba gune gi mere la ragal la naxal ak moom ndànk naxanteeg moom ndànk ba mu ñemehaat la naxanteeg moom ndànk naxanteeg moom ndànk ba mu kaam daan du sa bu mu la nëbbu bu ko wax ne rek bul def lii altogether nangam no wax ko ne nangam bu ko def waaye soo demee ba bugg ko def waxal ak man ma yedd la surtout bu dee mbiri farantu wala laalante yeah das man noonu laa koy waxee bi ko farantu wala laalante bu dee góor la you know wala jigéen farantu mooy laalante rek bot you know farantu laalante o farantu bu àndut ak laalante that's another story soo waxee gune gi ne ko bul xam far atool bul laalante atool man ma ko dee wax sama doom yi waaye dama leen di wax ne su fekkee nag dem nga ba war koo def nga wax ak man ma yedd la noo koy defee ba pare bu ko mës a def te solo kondom nga leeral leen loolu leeral leen li conséquence bu nekk si biir conséquence bu nekk si teel a biir ak ni ñi bu dee gune gu jigéen la gune góor yi bu ñu ko bëggee biiral bu dee gune góor gi ko bëgg biiral lu muy wax ak lu muy def yépp te fay fen fa dekk gune rek te nopp kii rek suy mag wecceeku bugg beneen jigéen bu def boppam nit bu fres lu ci bëri just waxal ak sa doom ji you know si njëkk ak teraanga ba xam conséquence bi ne si loolu waxal ak moom soo gisee ay vidéo sax néegi tiktok bi ni ñi dañ dëggu dañuy ñëw di jooy ne la réccu naa teel a xam doom réccu naa suma far ma déglu woon ko ma wala maa gune góor gi nopp ko mu biiral ma ma ma doggu ne sonn naa si single mode di jooy di def vidéo may gis nit ñi di ko def surtout ay tubaab wala ay nit ñuul yu ne ñoom dañuy dëggu suñuy xeete fa ñuy dëggu see boo nga xas leen parce que askan bi àdduna si àdduna si tout ñu ngi génn def vidéo yu dëgg du xeete ba mu des ñun ñun ñoo feebar ñun ñun ñoo du def vidéo dëgg bu dëgg di xeete te keneen ku ko def nag ñu xas ko pour mu soto pour ñeneen ña war a jóg def ko sax buñ jóg su ko defee ñun ñëpp ñu continuer di xal ko ñun rek ñoo wérul waaye àdduna si yëpp a ngi def vidéo yu dëgg bay jooy dëggu bay jooy di xeete góor nga koy gi mu def vidéo ne yàq naa suma sëy bi nekk naa di njaaloo suma jabar muñ na ba sonn bana ma su ma yëgoon du ma njaaloo ndax kéet di jooy gis naa ko du jeex du xaaj te ñun bañ góor ban góori askan mooy def loolu suñ suñ góori askan ñaata suñ góori askan bi lañ njaaloo yàq seen sëy nga gis góor gu la ne dóor naa suma jabar wala sàggane naa suma jabar di xuloo moom defanteeg moom bam ba ma réccu naa ko bu leen def mistake bi ma def ci yeneen xeet nga koy gis du nekk suñ góori askan bi de ñun suñ askan bi jigéen nga koy gis mu jooy ne la su ma xamoon du ma xarit yu bon su ma xamoon sori yeneen askan yi su ma xamoon du ma dugg si lu bon lii yéen bu leen ma roy bu leen def lu ma def nangam nangam réccu naa nangam wax bay jooy pour xeete vidéo bi nit ñi like ko séddoo ko respect ko naan ko jërëjëf nangam nangam waaye ñun ñun rek ñoo du def loolu ñun wéruñ moo tax suñu askan bi di yàqu nii yéen xanaa seetlu leen askan bi nu muy yàqoo wala tiitu leen ngeen a tiitut wala ngeen a soxor wala ngeen a faalewut askan bi wala ngeen a gisul askan bi fa mu jëm what is it just what is it moo ma jaaxal lu tax lu tax yéen ngeen mel ni dara xewul fa may xéem nag de ye may ñëw dem guys bëgguma vidéo bi gudd ye bot gune yi su fekkee nga leen di dóor soo bëggee ma def si moo vidéo nga waxal ma gune yi su fekkee nga leen di dóor soo buggee help nga wax ak man bind ma incha allah naa si um, def li ma man gune yi su fekkee nga leen di dóor ba gune yi ragal la soo leen xooxee sax ñu ne oh my god bako jullit ñaan yàlla ne gune yi bu ma leen duurati noo mat a wat na ma yàlla dimbale ba pare gune yi saa wuñ defee lu ñu wat a def rek su la sa yaram mi di wax ne sa xel mi di wax ne duural rek nga ne subhanallah non nga tudd yàlla nga bañ a dóor nga kaam down nga ne gune gi nga li nga def nii mu ne laa nga ne ko mënoon naa laa dóor waaye du ma la dóor mu ne laa nga ne ko parce que dóor du yare te sooy waxam moom nga kaam te man maa bëgg nga xam ne li nga def nii soo ko defatee nangam ak nangam doo alaaw internet wala doo alaaw lii wala doo alaaw wala doo alaaw lii mën nga koo ponis yenn ponis yu ndaw yi bot mel li na gune gi nekk sax xarit ba nga xam ne su defee yenn yi sax fay rus you know I don't know how to say because nu ngay wax ak moom si njëkk ak teraanga sax moo koy rusloo you know ak na gune gi xam valeur xam moom mooy kan bam jombale boppam yenn yi te liggéey boobu na foog naa ngeen koy bañ a def wala ngeen koy tayal a def wala xamu leen ko I don't ya bon liggéey boobu ngeen war di def te gune gi na gëm boppam su gëmee boppam rek surtout bu demee bay mag fay gën a tax lu muy def lu mu watare dana si génn te luñ ko bëgg a xëcc mu dugg du si dugg gëm bopp bi moo dee manqué rek te loolu dóor du ko waral dóor du ko def dóor fa koy yokk dóor fay yàq yokk gëma di sa bopp dóor slaas gune gi kilifa yu mu xam ndax kilifa yu gëm seen bopp la xarit yeeg li muy seetaan ak yëpp daf dee contribuer si gune gi kan la bët gëm sa bopp dóor du koy joxe gëm sa bopp soo ko xamut ñu di la dóor nga koy gën a ñàkk gëm sa bopp gune guñ toroxal dëgg du koy xam ndax gune guñ toroxal dëgg fay mag tërkiis ñàkk jom ku tërkiis ñàkk jom du gëm boppam because yooyu jikko yooyu moo xàndul gëm sa bopp ak tërkiis ñàkk jom moo xàndul ku tërkiis ñàkk jom dana tëjlu boppam rey boppam xalaat boppam suñu waxee mu ne maa tey I don't care because fa miin mitit programme bi yëpp a miin mitit ba chronique si yeah <clears throat> moo waral sëy yu bon yi yëpp su la nit loofee nga yàq loof bi foog ne moom ngay toroxal sa bopp ngay toroxal loof bi pour yow la waaye mënoo koo xam because nga miin mitit faale xool lu baax si yow yeah jos bañ lu baax si yow gisoo askan bi nu mel bu dul loof sax bañ lu baax si yow démb loolu laa doon wax ci soose vidéo bi ma ne woon askan bi bala nga xam ne bugguñ sëy bugguñ seen bopp ngay wax vidéo sëy wala vidéo bu sëy bu baax wala vidéo even lekk bu baax si yaram wala anything lu baax si askan bi bala nga xam ne askan bi mooy ennemi boppam nga nekk di gis nit ñi di génne xante ay audio di saaga ndey di toroxal nit ba muy xaru aka toroxal seen bopp maanaam def vidéo bu bon di mandeeka juutoo ko def vidéo yi bon vidéo yu xal ku yokkade sa doom yi fañ koy gis rus sa mbokk yi gis ko rus sa si doom yi gis ko sa doom yi rus ñoom seen bopp ñu vidéo vidéo bu record ko di la ñaawal aka di la xooxee jonkeeg xaj ak nangam nga gis nag ni ñuy ñëwee si vidéo thank you jàmm léegi thank you so much Marie léegi vidéo boo xam ne fay jëriñ askan bi mbiri sëy bala nga xam ne askan bi bugguñ sëy waaye su ma nee di wax si mbiri sëy rek bët set yee bët sëy lu baax la sëy sëy yu bon yi moo waral gune yi ñuy dóor gune yi ñuy dóor lu si bëri yaay ji fa ne ci naqat ne ci sëy bu naqat now si operating in fear fa jaaxle jëkkëram mu ngi koy toroxal pour doom ji tam mu ngi koy toroxal di toroxal boppam doom jaa toroxal boppam di toroxal yaayam because yaay ji dafa loof doom ji bëggul koo gis mu torox kon nag yaay doom ji yaay ji jëkkër ji di ko toroxal doom ji di ko toroxal di toroxal boppam moo tax muy tiit plus jëkkër ji nu koy toroxalee fa koy wax ne ko soo nangu toroxtaande gi sa doom yi duñ baax maa ngi lay toroxal waaye ba tey sa doom yi fañ war a baax because suñ baaxul mooy ne yow ngaa bon njëkkee yeeg goro yeeg ñëpp naan la waaw sa doom yi baaxul ngaa bon ifindoo sa jëkkër yow sa doom yi baaxul mooy ne yow ngaa bon ifindoo yaa ngi sëy ay xat xamoo jàmm ba tey sa doom yi suñ baaxul mooy ne yow ngaa bon du you understand li ngay muñ nii yëpp is zero because sa doom yi suñ bonee mooy ne yow bon ah waaw ok ba si kanam hmm. askan di fa fañ lay won la yow sa doom yi suñ baaxul yow baaxul su xeboo sa jëkkër di la toroxal ngay muñ su xeboo sa jëkkër di la def lu ne sa doom yi daal feeg baaxuñ yow baaxoo te askan bi feeg bàyyi di wax loolu askan bi mboolem ku bi gémmiñ wax loolu moo waral duur yu bon yi seetlu leen man loolu duma koy wax askan bi fañ xam seen wax yu bari yoo xam ne ami du koy wax seetlu leen loolu du ngeen di seetlu loolu liggéeyi ndey sëyeb doom ak xaw ma ay liggéeyi ndey xañi doom liggéeyi ndey liggéeyi doom liggéeyi ndey xañab doom waaw du may wax yenn wax yooyu xam nga tax liggéeyi ndey xañab doom moo waral duur yu bari ku ko weddi wéroo exactly tàppote leen rek léegi feeg yéen a ngi wax jigéen ñi ne yéen yéen a xamee doom yi pour doom yi barke si yéen la ne how the hell jigéen ji xamee doom ji doom yi léegi li ñuy xam li ñuy jàng yow moom loo si man even doom yi mag ñu njëkk ñi sax waxuma la léegi ay wis jigéen ñi ñoo xamee doom ji ay just wis that fi jigéen ñi fi sëy di torox jëkkër ji di njaaloo ku ko neex takk di la sonnal doo xañ doo reer ngay muñ jigéen ñooñu la seen doom yi di la jàmpaaka si mbedd mi di tux taay laaj ko ni ñi bu dee may fen soo nga ma bëgg wax ne gune yi agressé gune yi torox gune yi wala mag ñi nga xam ne wuñ waaye ñu ngi ñafe ñépp seen ndey yi fañ doon mbéj seen baay ak at wala jos nekk jigéen ji woon ma leen di laaj rek allo amiti xaw ma laan amoo tontu tapote leen rek xaw ma lu kii bind man si ngeen may bind yeneen làkk duma ko xam xaaral ma seen naa ko mun a translate bot mais ñoo dem sax guys xawma lan dear beautiful you are well good evening I love you jërëjëf tap ote rek léegi yow yaa ne ci nataal boobu wala lan yéen paa yi may wax I love you man duma loof benn paa te duma sëy ak benn paa bu fekkee loofi sëy la no waaye bu dee loofi loof rek la jërëjëf ye ñun ñëpp benn mbokk lañ ñun ñëpp benn duma loof benn paa yéen paa yi may lijjanti naan ngeen maa bëgg a takk bu leen ma takk duma sëy ak paa sëyoon na ak paa ma ne xalaatuma ko fi mu ne nii dégg ngeen ko jaral na ma toog ni man kenn màggat man kenn ngir yàlla yonent bu benn paa ñëw si man you di ma jéem a takk wala wax ak man focus leen rek tapote leen rek guys su ngeen bësee téléphone bi ni fay indi seen xarit yëpp ngeen jox ko xarit yëpp how can someone contact you am <laughs> you you message me here on TikTok my message is open for the public <laughs> paa fa paa yi ma sayal taay yi démb ak tey di ñëw naan man lañ bëgg a takk wala nangam ngir yàlla yonent ba bu benn paa bind ma ne fa ma bëgg a takk paa rek laay ba taxawal ma waxal la ñetti façon góor ñi ma bañ paa ak góor gu xam góor yaa gu ndaw ak borom biiru mel ni Macky Sall ñetti façon góor yi nee ba ma sëy ak ñoom so please ku mel ni ku ne na nga toogee ne la te yundu rek te ba ok léegi tapoté leen rek léegi what was I'm saying ah, fu ma tolloon sax waaw sëy yu bon yi moo waral dóor xale soo sëy yu bon yi because baay ji sax su fekkee ne happy wut ak yaay ji because mu ngi def yeneen jikko yaay ji di ko toroxal di defanteek moom you know di reject jikko yu bon yooyu noonu pour mu wecc you know mbala yaay ji moom la neex mu jékkee-jékki rek nekk yaay ju bon te ñun xamuñ loolu bariwut suñu askan bi jigéen ñi soo takkee ku la bëgg du jékkee-jékki rek bon ku ko wax waxut dëgg yeneen takk jabar ju leen bëggut mbala ngeen takk jabar boo xam ne yeneen koy toroxal ba jabar bi ceeñ you but anyway jabar bu la bugg fii nga def sa bopp nit jàmm ngeen di dund xarjana ye xam nga ñun jigéeni askan bi ye ok so yow su fekkee ne daal sa sëy bi baaxul yow bàyyi ji sëy bu bon stress la ci ci yéen ñaar yëpp muy góor gi muy jigéen ñi sëy bu bon ñaari façon moo am sëy bu bon bi nga xam ne kenn kii indi problème bi keneen ki fa koy nekk di di xëyu ci problème bi pour mu bàyyi di attaquer problème bi defanteeg moom pour mu wecc tapoter leen rek ak beneen sëy bu bon bi nga xam ne kenn ki fay ne di muñ rek you know keneen ki def lu bon keneen ki di jooy di muñ that's even worse though yéen ñu bari loolu ngeen bugg te loon moo gën a bon dabul xàq nga yam boroom di jooy ronkoñam yi tuuru because of yow genuine jooy xam nga genuine jooy boo ko defee jooy bu dëgg ronkoñ yi génn poison la poison boobu da da da nga ko gis yow. loolu is true scientifically proven ronkoñ poison la moo tax fa war a génn moo tax ñu ne la jooy fa baax si yaram is bi ko ronkoñ yi ngay képp poison boobu baaxul si yow. poison bi tuuru noonu na nga fa ne yow dana si danga si mucc lu tax mu nekk poison baaxul léegi nag ni nga koy génnee nga fa ne danga si mucc si poison boobu tàppate leen rek surtout ni ko xam ne nga koo takk wala mu takk la. takk naa la mooy ne rek du ma la toroxal mbooleem ku lay takk ku ne lum la tax lu tax mu di la takk bi ko di la toroxal nit koy takk ne lu tax di ko takk bi ko doo ko toroxal nit lay takk lu tax mu di la takk bi ko di la toroxal loolu tax mu di la takk képp ku ngeen mës a gis mu ñaani nit ne ko ma lay takk pour toroxal la wala nit di takk nit you know wala nit di ñëw si nit ne ko may ñëw pour nga toroxal ku ko mës a gis na wax ma lay takk mooy du ma la toroxal I love du ma la toroxal su la waxul I love you sax jox di la takk si ngelaw noonu te waxul I love you ba tey lu tax mu dee takk mooy du ma la toroxal allo kaay du ma la toroxal nga waaxu ñëw ba pare mu di la toroxal bitiree na la ba pare sa xàq dana ko dal ngay tëdd di jooy. léegi ñaari façon ngi nit ñooñu noonu moo xam ci sëy bu bon ki nga xam ne du xëyu buy jigéen ji mooy torox wala góor gi doo seen mata ki nga xam ne fay torox rek di muñ ak nga xam fay torox di xeex torotaande gi mel ni Ami Jóob naan la bébi waaye yu doyandis nangam nangam yu noonu ñaar ñooñu moo xam te léegi nag yéen bugg leen si benn te benn baaxul si yow yow mi toroxal nit ki exactly léegi su dee kenn nga xam nga xam ne moom fay xeex toroxtaande gi maanaam di defante yow pour nga wecc ngay stress soo stressé ngay gën a mere gune yi nag si loolu di leen duur sa yaay fa bon moo tax nga bon noon ngay duuree gune gi léegi bu dee baay ji moo bon gune gi yaay ji fa koy duur sa baay fa bon moo tax nga bon sa mbon ak baay gi nga xam ne surtout bu gune gi nuroo baay ji leen rek mais ñëw dem sax hello no i mean private need your help yeah that's what i mean message me here on tiktok my message is open for the um, public that's nice go and pray and for all of us léegi gune gi soo koy dóor te fekk yaayam ku baax la xool leen lu ma leen di wax nii may ñëw dem de yaayam xamoo ak moom coono ku baax la te yow doo koy sonnal ba tax baax gi continue di xam ak yow jàmm gune gi def lu mu waxta de nga di ko duur yow bàyyi ji bu de yaa koy dóor fa xuutee gune goo xam ne xamu wax ak yaayam jàmm te di ko dóor ku weddi lii ku ne waxu dëgg mbala mas ta dund li may wax ni exactly laaj ko ni ñi gis nit ñi ko dund wala nit ñi doon nit ñu xam li may wax tàppate leen rek vidéo yi naa ko def youtube suma pare incha allah youtube link mu ngi si kaw dama fa dee def suma yeneen vidéo yi ma pare fi tàppate leen rek léegi suma YouTube bi nekkuma di fa xam benn xaalis waxuma le pour ngeen dem fa pour xaalis de xamatuma fa benn xaalis YouTube daf ko euh, demonetize lu fa dem duma fa xam dara ya bot ba tey naa dama fay def vidéo rek pour pour nit ñi nañ ci jëriñu rek baax na wala entertainment you know <clears throat> léegi Ami Olof vidéo bi laa war a develop mun naa xam ma def fo lii nii sax Ami Olof YouTube bi ma naan lan Ami Olof YouTube bi laa war a develop because su loolu duma ko mun a monetize ma monetize boobu noonu <clears throat> xawma fu may mujjee bi nag dama koy tëj I don't know ba xawma ndax dina génn xawma gars yi ñu ne dama war a appeal xawma maa ngi a appeal foog naa this month on the 19 ndax xawma la next month dinaa checkaat ba anyway um, gune gi xam ne yaayam nga xam moom jàmm mu def lu mu nga di ko dóor fa dóor koy duur fay xuuteeg nag gune nga xam ne xamoo ak yaayam jàmm mbala buggoo yaayam ak gune nga xam ne xamoo ak baayam jàmm wala buggoo baayam tapote leen rek du you understand that yéen laay waxat ba bind leen xëyuma ayam soone yéen yéen a ma ëpp xel foofu ngeen di dof dof lu xam ngeen lu may wax nii ya eh? ok léegi sëy bu baaxut baaxut because sëy bu baaxut su gune yi baaxut ngay bileem sëy bi te fekk yéen yi ngay xam sëy bu baax sa gune yi duñ dégg boot bëriwut scientifically proven research proven gune yi jóge ci sëy yu dëggu sëy yu xamul ay njaaloo ay jooy ay toroxtaande sëy yu dëggu foo ko si liggéey ak toppatoo xale ak yàlla boo xamee yàlla you know sëy yooyu gune yi fa jógee ñooy gën a xam chance pour nekk gune yu baax gëm seen bopp xam liggéey yu baax barke dan sëy njaaloo toroxtaande jooy loolu mënu ko wéddi ñi nit ñee ko risaaj ay junni junni nit xat ci àddina si tuub ba gis ko junni <clears throat> junni gune yu màggee ci kër yi àdduna si tuur ñoo ko risaaj ba gis ko mënoo ko weddi loolu bu la neexee nga weddi ko doo ko weddi loolu bon bon xam nga li may wax ni dëgg la yee ko yéen ci yéen ñi may seetaan lu ma wax oh, dara wala oh risaaj ko bu demee fen soo ko risaajul sax xam nga ne loolu make na sense exactly léegi instead of nga focus si duur gune gi ba muy waaj a dee yow bàyyi ji focusal si bul ne di njaaloo bul ne di fen bul ne di sàggane sëy bi téye sëy bi ñaari loxo sëy bi mooy gune nga téye gune yi ñaari loxo di leen baqeel di leen loof di leen yërëm téye seen yaay ñaari loxo di ko baqeel di ko loof di ko yërëm ngeen focus si gune yi nu ñuy jàngee nu ñuy you know defee seen basic stuff you know protect leen yedd leen su fekkee sëy bi fa jeex xaw ma sëy lu ko jeexal nag ba boot lu si bari si yéen góor ñi la dee nekk di toroxal jigéen ji yéenoo surtout bu la jigéen ji buggee nañu jigéen ñi askan duñ bugg góor a pare jàmb ko waxuma yéen ñi takk jigéen ñi leen buggut jigéen yi yuusa yi confis yi nga xam ne xalal leen yi nga xalak stupid stuff ngeen takk leen ñu yuus leen domp leen waxuma loolu loolu du sëy yéen a ko def yéen ñi fa dugg te waru leen fa woon a dugg yéen a ko tey ngeen di dox toxlu de xàmme ngeen jigéen ñi leen di bugg ak jigéen ñi leen di toog pour xalaat ngeen yéen na ko tay ngeen di dox doxlu de yéen ñu bëri xàmmee ngeen ko mais ñëw dem tapote leen rek vidéo bi mat na benn waxtu mën naa koo dagg une minute <clears throat> seddoo leen ko te tapote ko ko def ami xolof youtube incha allah su kaname su ma ko downloadé <clears throat> ami xolof youtube bi fa xuutee youtube link bi si kaw boobu link bi newul si kaw te boobu laa war a link si kaw sax what am I like bi si kaw mooy Ami Jóob YouTube bi bu ma njëkk a am Ami Wolof bi léegi noonu la yow ni ngay def mooy focusal si sëy bi mu baax sëy su baaxee rek yéen ñëpp ngeen focus si gune yi ak sëy bi ak yàlla ak xaalis bot bu leen focus si xaalis trop ba du ngeen time gune yi yedd leen ak yooy you know mm-hmm. rek yàlla baax na waaye gune soonee soo du ma leen mën a yar fii ma leen di yóbbu Afrique loolu te tëjee wax ji Afrique boo fa yóbboo sa doom yi oh my god du ne ngay tiit guddi ba doo mën a nelaw lu si bëri ngay jaaxle suma doom jaa ngi Afrique loolu daf la dee stress yow yaay ji man xam naa si loolu dara but also nit ñi xamee xale yi Afrique ñu du bugg xale yi ñëwaat because njëriñ bi ñu siy jëlee soo fa ñu nekk di la liggéey pour bu xale yi ñëw di liggéey xale yi pour buñ tukki billahi wallahi tallaahi nit ñu bëri ñooy dénk sa doom yi Afrique bala nga baxee leen ko ñëw fii duñ bugg sa doom yi ñëw wala duñ bugg ñu ñëw léegi buy fukk la juróom-ñeenti yëpp duñ bugg lool di xaalis bi ngay yónnee rek la ñuy seet xaalis bi ngay yónnee pour gune gi bu mu sonn xaalis boobu la ñuy seet ñoom njëriñ liñ ci xam ñoom la seet ak fa ñu foog ne gune gi bu ñëwee doo leen loofati ñoom doo leen faaleeti doo leen dimbaleeti maa ngi ñëw dem yee surtout bu ngeen tàppatee vidéo bi noonu la ñuy def ba gàddu sa xàq gàddu xàq gune gi waaye gune du ñëw de sëriñ bu du bu jinne dinañ fa xut mën ngaa indi xaat gune gi bot soo soo la yàlla dimbaliwul dëgg du ñëw te fañ koy def ba di la dëddalee gune gi fañ koy def ba gune gi ñu di ko daaj pour mu toog du ñoom ñëpp bul tiit bot ñoom ñu bëri xam ngeen ñu nit ko ñu rek exactly gis nga nit ñi ni ñuy toppee nit nekk xaritam jos bi ko so xalal nga nit ñi ni ñuy sëyeeg nit bi ko so xam nga ñu ñun nuñ mel exactly kuy séyeg nit xubbeeku mu di la laal just because of halal wala yow góor nga laal nit ki because of halal wala opportunity sa dere ji nga di ko jox jox ni ki koo xam nga ne doo dara lu mu du def nit koo xam ne fay xaritoog nit te fekk nit ki noonam la just because of halal bala nga xam ne nit ki noonam la mu joteek moom just because of xarit bee ko xëpp bës wala halal moo tax mu nekk ak moom bor faalewu ko ku man lool ku support président sax buy toroxal nit because of halal kuy jos jaamu halal you know ñun exactly léegi fa borom fay wax ne yow boo xamee wut doom ji sax Afrique boo xamee wut doom foofu sax dañ lay liggéey pour nga jege leen def def na si yàlla nag yàlla protect la dañ lay liggéey soo jegee kenn ci famille bi ñu di la liggéey pour nga dëddaloo ko am telling you this yàlla moo la dee dimbale rek because liggéey yëpp day dox you know yàlla moo raw liggéey you know but anyway doom yi bu leen yóbbu because nga foog ne soo toogee suñ toogee fi doo leen a yar doom yi bu leen fa ba booy ñëw fii indi leen soo leen fa baxee da ko réccu am telling you des léegi suñ nekkee yow fii bu leen di dóor suñ nekkee Afrique ak yow sax bu leen di dóor ku dóor ku ne na stop right now na dem xam fit mu xam fulla ak fayda mu bàyyi ji koy kaawat oh su ma leen dóoru ne doom boo ko dóoru du yàqu konoon Afrique kenn du fa yàqu kono ñu nit ku ñuul gën a baax tey yaru si àddina juróom-ñaar exactly te ñëw mel ni soow mu xaj day bañ suñ bopp dëkk si bon rek kon dóor bi lum ñu jëriñ soo waaye ba tey nga ne dóor dóor bi is the best bul dóor jàngalal gune gi mu gëm boppam xam xam banduri di wax gune gi dëgg di doxal jàmm gune gi dana la respect by force gune yi ngay dóor du tax ne fañ la respect fañ la ragal ragal ak respect dafa nuróo ta xuute fa mel ni Macky Sall la xaj bi fi mu ne nii boo waxee mu arrêté la tëj la ni ni tax tax yéen nit ñi duñu wax doosin mi ne fañ respect Macky Sall la xaj leen ko def it's just fa leen di tëj kaso gi lañ respect kaso gi lañ ragal du moom gune gi su xamee ne tey su ma waxee nga dóor ma wala sa jabar xam ne su ma waxee nga dóor ma is not life fa la ragal métiti dóor bi lay daw loolu la ragal du yow te su boobaa nag métit bu ko nit ki jëlee tëkkale ko yow xam ne yow su la xalaatee rek xalaat métit xam ne su deful li nga bëgg fay xam métit mooy ne yow ko na yàlla sax du du lay def noonu léegi nag fay tax mu mu xam xeet wala di xalaat ne buggee gi dëgg la wala du dëgg wala jos mu jël jikko jooj di ko def keneen soo xamee jabar ëllëg wala xam jëkkër wala xam doom di ko def liggéeykaay sax mu di ko def moo ta suñ doom yi fii di jam nit paaka te di kaso digg bitim réew gi ci lu ñàkk fayda ñëw bu ci dëkki tubaab bi nit ne la néega nga jam ko paaka yow sooy bañ néega looy ñëw ci dëkki tubaab yi nga xam ne néega rek lañ xam ñi la daan xeew ci garab nga yendaantalu nga ne duñ la wax néega waxuma ne ñu wax la ko de waaye ndax loolu jar na tëddi kaso wéroo kon gaaw na toog sa ker mango ga bañ fekk la fa ne a néega nga jam leen paaka waaye ñëw seen digg hëtt na ne tuñ la waxee néega nga jam leen paaka ndax xamoo ne néega am nañu ciy jam nit paaka bay te di kaso wala leneen ak leneen jos ñoomu neen sa xeet di jamante paaka fii surtout gambien yi rek ci xeex gambien yi góor yi fa ñuy tëddi kaso fii ci ay jamante paaka laa la wax mhm. lu ko waral xamuñ seen valeur dóor gune fay tax gune gi du xam valeuram moo waral nit ñi di ñëw ba fii def non sens tëddi kaso xam loof yàq ko yàq seen bopp xalak seen bopp lu bon luñ dugg duñ ca génn ba pare nag lu bon luñ ngi waaxu dugg nag ba pare duñ ca génn nag yow boo xamee ne ngaa wik loo dugg doo ci génn lu tax loo gis dugg ci xanaa dugg ci lu bon du pour nit ku wik dugg ci lu bon nit ku wik waru ko def bi ko boo ko defee dee nga yaay sa ennemi bopp doo génn ngay every day ngay xal ko di wut lay rek di gën a xal ko anyway that's another story <laughs> barki yàlla maa ngi dem guys bëgguma vidéo bi gudd te war a defar lekk bëgguma guddee reer <clears throat> so it's like that you know boo jullee ñaan si gàmmu gi tey ba si gàmmu la cere or not jullil ñaan you know budul gàmmu gi sax just soo néewut di julli sax sa xel bu ko dajee nga ñaan ne yàlla dimbale ma bugguma dóorati sama doom yi bugg naa sama doom yi luñ ma mere mere bu ma leen dóor waaye tam maa ngi leen ñaan nga yar gune bañ di ma déglu déglu seen bopp seen xel mu baax mi ni ku ne fa am bu baax ak xel boo xam ne mooy sa ennemi déglul saayit bi nga xam ne mooy sax saayit bu baax bi nit ku ne boo téye cigarette bu góotu sax sa bopp bi fa lay wax ne bul tox de surtout boo masta tox def na si yow nga déglu ko fay ko wala ngay jos déglu bu dof bi mu naan la ah nit kenn yee yeemaan defal li soo del ñaan gune yi di déglu fii nga waxal gune yi loolu jàngal leen ne nit soo buggee def lu bon fii fa lay wax ne bul def fii na la defal xama ban bool la bon you know ñaari xel yi ñam xel bu bon bee bu baax bi you know <clears throat> déglu déglu bu baax bi boobu mooy sa best friend bu bon bi mooy sa ennemi jàngal ko gune yi bañ xam ko bu bon bi su la jayee ba nga def loo wata def mooy toog di la xas naan la yow ngaa stupide ngaa dof oh <tsk> sonn nañ wala fuñ jëm buñ la tëjee kaso sax mu ne la woo oh, dee nañ suñu àdduna pare na ngoog ñun dee fuñ jëm ah ñun ñoo rek lu tax ñu def lii ba ñëw fi ah nangam nangam loo def lu ne bu dul kaso sax loo ci jëlee lu bon mu ne la yaa stupide yaa dof seetlu leen lool ngay wax ne wat xanaa sa suma xel ma doon wax ne naa def lii di sim xel bi lay wax ne defal lii nit kenn matut defal lii ah sa la boo defee loolu ba feebar si wala nga jëlee si gàcce gu bon wala nga jëlee si toroxtaande yu bon wala nga jëlee ci kaso wala anything anything su dee sa sëy bi moo si doxee yàqu sa anything di seem loolu moo lay wax ne la ah yow yaa dof yaa ñàkk fayda yaa wik yaa lii oh yow kay dee nga yow kay xam foo jëm ñu naal oh nanga doo nelaw nag mu di la xas seetluhu leen loolu lii yàgg naa ko waxat yi yëpp de lii ma ko xamee la wecci suma àdduna ndax man kenn rek maa xam loolu yéen xamu leen loolu xam ngeen ko nit ko ne fa ko xam xam nga tax lool di ñëw pour yar la loolu moo raw sa ndey raw sa baay fekk yaa ngi dund fay ñëw fay ñëw pour wax pour xas la pour yar la nga ne ah lii dee waratuma ko def pour beneen yoon léegi nag balaa nga ko ne di def mu di la yara pare nga dem defaat ko mu ñëwaat wax nga defaat ko mel ni ko balaa caag fa lay woon moom de soo buggee def loo xam ne mosoo ko def lu bon lu ne fa lay wax ne ah bul def lii bu dee loo yàgg a def la sax boo ko def fa ne ah lii baaxu de he ñun ñu ngi defati lii oh my god lii baaxul de yaay continuer ne ko déglu bi su ko defee mu naan la ah nañ ko def waaye whatever you know nañ ko def pour ñu happy wala nit kenn matul wala ñi wala nangam nangam bu dee ay nit ngay defantee sax ñii ñoo la gën a bon ñii lii boo deful lii fañ la yeb nangam di la jay daal ba nga def ko lu manti doo lu ne léegi soo ko defee ba pare mu ne mu ñëw nag ne la hmm, def def nga lii again oh yow nangam mbala des xàq ji bu ñëwee toroxtaande gi ñëw ak yeneen yi taxoon ba waroo koo def yëpp bu ñëwee mu ñëw di la xas di yërëm boppam balaa caag bu ñëwee fii déglu ko bu ñëwee ne bul def lii rek stop bul xaar bul wax ne oh, bu ko xalaataat bu lay wax ne bul def li rek stop maa ngi ñëw dem guys I swear bu lay wax ne bul def li rek stop te bu ñëwee yéen ni benn yoon rek la koy wax seetlu ko rek bu lay wax ne bul def lii rek stop loo xalaat bugg ko def mu ne la subhanallah bu li what oh my god rek daf lay won ne la daf lay wax ne daf lay won la oh lii waruñ koo def de oh lii waruñ koo xalaat fa la koy wax buy looy seetaan te waroo ko seetaan sax tapoté leen yéen góor ñi def seen bopp nit sax bu ngeen di seetaan vidéo góor jigéen wala lu bon xam naa ne fa la koy wax def na si yow nga yar sa bopp baay wala nga toog di ko seetaan ba góor guy seetaan vidéo góor jigéen léegi tey ñu juutal ko wala mu juutal nit te góor guñ juutal léegi tey moom tam ñu juutal ko góor guy juutal góor léegi tey ñu juutal ko moom tam loolu laa bu ngeen xam ko jigéen ji seetaan vidéo jigéen ak jigéen léegi tey ñu tëddal ko mais ni muus mu si butu te jigéen yoo xam ne nii you dugg na si loolu daste cigarette sax booy seetaan ku koy tux léegi di toog ak moom léegi tey nga tux sangara lu ne rek lu ne rek saaga sax booy toog ak ku koy def but bu set léegi tey nga saaga lu ne rek lu ne rek so léegi nag yooyu boo koy seetaan for exemple sa yuur gi moo lay wane ha lii baaxul de lii ñaaw na de dana si yow nga déglu ko wala nga toog cigarette sa bu ko jëlee bu ko sa yur gi moo la ne bi baaxul si ñun de bu dee miinoo ko wala mosoo ko de dana si yow nga sànni ko wala nga continuer léegi nag su ñëwee wax la ko faale ko fay bàyyi bii nag moom bu soxot bi man noonu laa ko gisee mooy continuer nag naan la xay nit kenn matut xay is fine xay lii afta ñi mën nañ koo bàyyi xay lii nii lii nii fay ne di ngunu ngunu di la motiver rek moom xam nga lu tax muy def loolu scientifically proof ne sa yuur gi maa ngi wax lii bala maa dem sa yuur gi su la indilee xalaat sa yuur gi ay xalaat rek di la jox xalaat rek mooy mooy liggéeyam léegi su xamee ne moom su la joxee xalaat pour nga protect sa bopp doo ko déglu xalaat bi mu lay jox pour nga xal ko moom ngay déglu billahi wallahi tallahi sa yuur gi xàmmeewut ban xalaat moo baax si yow or not like ko scientist yi ñoo wax lii du man man maa yàgg a déglu scientist xam naa moo tax faatu bu nga nekk scientist su ma jàngoon scientist laay doo xam naa ne <clears throat> scientist yu bëri maa leen raw fi mu ne ndik seen xam-xam bi may déglu <laughs> lu ma la wax rek la sa des ko fii su xamee ne ami su ma ko waxee mu buñ def lu bon lii du ma faale fa nekk rek looy def lu bon mu ne la def ko nit kenn matut su fekkee yaa ngi def lu bon maa ngi wax lii bala maa dem dégloo xar rek seetal seetlul lii rek bu dul gune sax bu dul dóor gune sax seetlul lii rek sax aduna dana wecceeku su xamee ne ami su buggee naan ndox su soxla su waree naan ndox ba pare xam coca cola wala xam ndox xam café wala xam ndox xam juice ok waaye léegi ndox bi moo baax si moom waaye léegi su ma ko su ko su yaramam yëgee ne fa war a naan dara su ma ko fàttalee ne ko naanal ndox tey newoo di naan ndox du naan ndox fay naan juice su xamee lool su yàggee fay noppaliku di la fàttali ne naanal ndox juus bi dox lay indi for exemple su xamee ne su la waxee ne la xam nga juus xam nga ndox si néeg bi xam nga juus xam nga ndox xam nga café xam nga nangam xam nga rek ku ne xam nga sa néeg la fa ne you know léegi yow soo maree for exemple war a naan dara moom fa lay fàttali ne la ok xam nañ juus si fridge bi xam nañ ndox xam nañ lii xam nañ laa for exemple nga dem choose choose juus fay xam ne ah bi rek moo dee dox fay su yàggee fay fay noppaliku si ndox bi su xamee ne saawam la waxee ndox rek ne la juus ne la ndox ne la nangam rek nga yuus ndox bi su yàggee ndox bi rek lay nekk di la jox te lii soo ma weddee nga dem risaay ko léegi xalaat bu la indil for exemple su xamee ne moom su la indilee kalaat ne la euh, demal nga njaaloo ba pare mu ne mu indil la xalaat ne la sa jabar si kër gi waroo njaaloo yàlla bugg ko nangam nangam ba pare mu indil la ne la waaye mun ngaa njaaloo njaalo dafa neex ni kenn matul ah nangam nangam léegi yow boobu ngay jël def ko mooy njaaloo dafa neex ni kenn matul wa ever I don't know why lu tax ngeen dee njaaloo yéen góor ñu bëgg njaaloo ñu ba ak jigéen ñu koy sax you know su xamee ne boobu ngay use doo use suma jabar mu si kër gi wala xam naa jabar waruma njaaloo wala jos waruma njaaloo bi ko njaaloo mun naa see jëlee feebar suma loof bi dana yàqu suma jabar dootuma loof respect ma genuine li xanaa muy féeg mais ni jigéen ñu gëma di seen bopp ñu mën a féeg ñi si askan bi you ñooy problème askan bot nga xam ne njaaloo fay yàq loof yàq tros yàq respect bi ba pare nga xam si bàkkaar mu yàq sa xaalis nit mën na la see rey sax nit daf dee dee bi ko sof njaaloo mu ngi tëdd ak nit kook faram wala mbokkam wala jos keneen rey ko ngir loo wala kook rey ko pulos mu jëlee si feebar pulos bàkkaar bu dee faale na bàkkaar jos mu xalaat lool su xamee ne su la waxee lool yow ngay xalaat li ànd ak lool ba pare doo ko yuus doo yuus lool ngay yuus leneen lu baax li mooy ne xam naa jabar may tokki sama jabar nekk góor gu baax nekk góor gu gore gu gore subhanallah yàlla saytaane lu ma toppee may xalaat li su xamee ne bii ngay yuus fay bàyyi di la indil bii taraay ko seet buy tux cigarette la sax soo ko bëggee ba yuusal technique mu la wax nii waaye mun nga maa bind ma waxal la yeneen technique tux sax nga koy ba mbooleem looy def muy naan tux tëdd koo tëdd mbooleem looy def sàcc fenn njaalo mbooleem looy def si àddina wax lu du dëgg ànd si lu du dëgg mboolem looy def si àddina lu baaxul buy naan ndox sax doo koy def soo use technique ma la wax ni léegi danga commencé di ko def moo wecc suma àdduna you know dóor gune di seem su xamee ne gune gi su defee lu mu war def sa xel mi fa lay wax ne dóor ko bu ko duur mu yàqu bi xel na la ah sa door yi ngay door gu nekk yëpp na de nga déglu bi léegi saa gu nekk defatee lu la wata dee mu leen a ko bi ko sa xel mi xalaat yi mu lay indil fa lay indil différent xalaat di seet ban nga jël bi nga jël moom lay nekk di la indil parce que moom bëggul jox la xalaat xalaat boobu du dox loolu rek la bañ fa mel ni businessman bu jonkoon fii di la jaay fa mel ni tiktok ni mu indilee lu ne loo bëgg lu ne fay xam xalaat bi lay jox te doo ko yuus ak xalaat bi mu lay jox nga di ko yuus te boo ko jox mu yuus ko rek booba lay nekk di indi bi ko moom yow lay dimbale xamul ne sax loolu baaxul si yow yoonam néew si fa la koy indil rek moo tax fu mu jaar bu la joxee xalaat bu baaxul si yow nga ne ko subhanallah nga tëb ci peelu ñëw si xalaat bu baax bi lay jox lu si bëri ñaar la lay jox su dee na ngaa di yuus bii ba mu xëpp bàyyi foos nga nekk di ñëw si bii soo su la joxee bii te xamoo bi nga créer bi maanaam for exemple bu dee man la su suma indilee ne ami yow xamoo jëkkër right now te sedd baa ngi ñëw or something like this I know that's funny ba xaaral ma use loo rek <laughs> léegi <laughs> léegi góor waxati <laughs> léegi nga te xamut xamoo xamoo bu motivé fii xamoo xamoo beneen fii like just loo xam rek mooy xamoo jëkkër te sedd baa ngi ñëw for exemple su ko defee nga ne ok waaye xaw ma jëkkër te sedd baa ngi ñëw but it's fine you know xaw ma jëkkër right now waaye xam na jigéen ñu bari ñu nekk sëy bu bon di jooy te ñu ngi ne ngéeje du nekk dund lu may dund nii xamul njëkkat moo gën naqat ba pare mën naa xam njëkkat ji may xam ëllëg dana baax te ñu xam jàmm ba li ma toog di xaar ni yëpp duma ko réccu you know nga create motivate son bi for exemple create ko yow nga def ko fi bi ko yéen yi daf lay jox rek nga ah yow xaal ko nga xamoo lii wala diw jàmbu na la wala diw def na la lii wala lii nanga wala xamoo liggéey wala xamoo kayit wala doom wala lii wala jëkkër jos jox la dara you ba pare du la jox leneen loolu du ne saa yu ne la lay jox leneen loolu de léegi yow yaa war a créer leneen lool baax loolu yenn yi di understand su ko defee nga ne ok ma lii su fekkee doom la wane xamoo doom nga ne waawaay xam nañ ñoo xam ne xam ñu ngi xamee doom te duñ nelaw bi ko seen doom yi xam na ñoo xam ne suñ doom seen doom yi gàcce giñ leen di teg ak naqa duñ leen di teg xaru rek yàllaa leen tere xaru te xam na parents yu xaru bi ko soo doom bay dawee surtout bitim réew yi doom yi màndee ka xala ko toroxal seen ndey yee ka tëddi kasoo ka xam na doom yuy rey seen ndey yee ka dóor seen ndey yi bitim réew fii dóor ndey fa fi xam xam na Afrique sax fii la ëppee ba ndey yee xaru ngir doom ji wala tëju si néeg duñ génn ngir doom ji oh my god ma beneen xarit bi doon liggéey ci palaas yi ndey yi koolee bi bu leen seen doom yi sonnal doo mën a doo gëm sax liñ lay wax ay tubaab ak yeneen xeet yëpp ba tubaab yi la ëppee fii ngir doom yu xamadi di dóor ndey man doom dóor ma man maa mës a dóor suma yaay ngaa dof du ma la dóor bu ma dóoroon waaye si nga may gëj a dóor keroog laay dis oon yu mu jeex du ma du ma defati sa yaay xëy <tsk> laa baaxal si loolu sa loxo laal ma ngaa dof <clears throat> waaye yow tam bu ko ne di dóor ya doo ko ne di dóor ba pare ne ko bu ma dóor <laughs> story <laughs> léegi <laughs> for exemple sa xel mi su nekkee di la doom xawuma ko xaw ma doom wala xaw ma nangam comme yeneen nit ñi ñàkk doom mooy seen problème ndeysaan yi noonu nga gis yeneen nit ñi nga xam ne ñu ngi amee doom di torox seen bàyyi doom yi duñ leen faale àdduna boo ko seetee mbooleem loo xamul ba doo nelaw xam na ku ko xam te du nelaw because of loolu moo tax nelawut xalal ji xam ne moom nga xamul ba doo nelaw borom xalal yu bari duñ nelaw ko of seen xalal jooj di seen ñàkk nelaw bi ngay def moom la ñuy def ci biir million yooyu aka stress bay dorogu aka mandi because of xalal ji yow rek laa bëgg jërëjëf waaye jërëgeen jëf masha allah ami love you <laughs> just bëgg a motiver suñ bopp you know mm-hmm. it's not easy te àdduna lu am solo mooy nga am fanu gudd wér yaram ak gune yi def seen boppu nit ñaar yow rek moo am solo si waajur bu ne su ko wéyee dëgg des yeneen yi yëpp it's not important I stupid stuff yi you know that's nothing foo ko si yooyu rek léegi ngay naxantee gune waaye maa ngi dagg vidéo bi su ma leen toppee duma dem te maa war a dem togg but yeah just naxantee gune yi you know just calm down julli ñaan yi yëpp dana baax na gune yi gëm seen bopp fexeel ba def leen technique yi gëm sa bopp rek gune yi xamee ko gune yi mënoo leen a garde gëm sa bopp boobu moo leen di garde fu ñu manti ne boo deewoon nit yàlla te ah fi ma nekk nii ndax suma yaay moo garde lu may garde gëm suma bopp bi ma jàngal suma bopp man waaye gune yu bëri nag is beeta nga teel leen koo jàngal ndax man su ma teeloon a xam li ay at si gannaaw sax ni ko ma naan du ñëw fii ndax paa tubaab bi ma sëy ba indi ma fii du ko nangu <laughs> so kono ma naa maa si kër mango yi kon di waj waji but that's fine at least yàlla dimbale ne ma ma commencé dund gëmadi sama bopp ma xees ma bopp delluwaat yeah yàgguma si diggante bu may sëy ak paa bi ak diggante bu may ñëw fi ak diggante bu jàng gëm sama bopp yàggut diggante bi yëpp juróomi at yi fa paase rek matu sax fukki at ma gaaw xalaat ne ii waaye nit ñi nga xam ne nag fa ñuy dund loolu ñaata xat te duñ ko mas a jàng nag soo santal yàlla nag man ma sant yàlla man bon ne jàng naa lool you know mais konoon may ñëw ba fii di continuer gëm sama bopp di topp ay tubaab ak ay yeneen nit ngir xaalis wala stupid stuff di yàq sama bopp bot soo xamee sa valeur loolu du la attract kuy def dara lu bon di ci jëlee ay million nga koy reemee ni fa dof fay mel ni fay sangoo day bu jëlee xaalis ji di ko tuuroo ak a tuuroo xalal ji sax ngay mel ni day lay sangoo nga di ko ree toog di lekk sa sardeñ ku gëm boppam dëgg ki gëmul boppam fay foog ne ki gëm boppam fa dof ki gëm boppam fay xam ne ki gëmul boppam fa dof waaye ki gëmul boppam fay foog ne ki gëm boppam fa dof ndig li muy fonkee boppam di ngëb si boppam du bàyyi boppam bi ko soo du dugg si dara bi ko soo xalal dugg si li mu waxta dugg bay tëddi kaso wala di ci ko wala di weccee dara tam ji ak xalal te yow mi gëm sa bopp nag xalal ji jaral la lu ne ngay foog ne kële fa dof moo tax deful lii kële nag moom du foog ne ngaa dof def fay xam ne yow ngaa dof fa koy xam mu leer ko nañ ne wéroo mu di la seetaan ree jàpp ko surtout booy wonoo xalal jooja <laughs> xalal joo weccoog sa deret ji mën nga ko mën nga ma ko wonu man xam naa deret man naa def loolu maa ko defut loolu is free is for the weak weccoo sa sa deret ji ak tax pour nga xam xalal wala pour nga xam dara is for the weak nit ku weak te gëmut boppam moo koy def te loolu is free ku ne mën na ko xaj sax mën na ko it cost nothing is free ku ne mën na ko all you need to do is ñàkk jom te bul xamati sa valeur defal sa bopp ni doo dara ñaari technique yooy rek nga soxla di gën a yomb si àdduna moom nga soxla mooy wàccee sa bopp zéro def sa bopp ne doo dara pare pour everything pare pour def lu ne jos na nga xam come ku mënul loolu kan la exactly loolu is free soxla woo benn xam-xam pour def loolu exactly ku la mën a ñaawal ci lool wala di la tiitaru ci loolu mu la wéeroo kon kook li muy def yaa ko ko dàq nga ko bugg ta def li nga xam moom la xamul li nga xam mooy gëm sa bopp xam sa valeur ndax yaa gën a foor xalal bu nit di xam bu ne kenn mënul laa defar te loolu du la tere xam nit ñi gëmul seen bopp fañ foog ne buñ gëmee seen seen bopp duñ xam bañ a xam fii ñaata millionnaires ñoo fi gëm seen bopp te nekk millionnaire xalal léegi jafewu de su ko bëggee xam gëmal sa bopp rek xalaat business te jàng wala nga dem collège wala wala uni wala nga jàng online about business gëm business créer dara gëm sa bopp waaye di jël sa bopp di soppali sa bopp magasin di weccoo sa deret ji ak xalal daal ah oh, weak coward hopeless idiot waay waaye kuy wanoo loolu ku ne wérut léegi yow jàngalal gune yi ñu gëm seen bopp rek loolu mooy seen gàllaaj ya ay suweetu ala ngi dem léegi jàngalal gune yi ñu gëm seen bopp ñu xam seen valeur xaduna léegi gune yi gëm seen bopp rek mooy seen gàllaaj te dóor yi du ko joxe dóor fa leen di créétal dépression créétal leen naqat ak yërëm seen bopp ak gaaw a mer ak yeneen ak yeneen because nit bu dundee unfairness unfairness mooy lu lu jaaduwul dal la loo xam ne warul laa dal jaaduwut mu dal la surtout bu la ko nit defee ba pare nag baluwuñ la àq la ngay nekk di yërëm sa bopp ngay gaaw a mer ngay doo xam sa valeur ko ñooñ dañ wàccee sa valeur moo tax def la loo luñ la def luñ la wattade lu ne bu dee fañ la làmbatu bu dee fañ la dóor dóor bon bu dee fañ la def yeneen loolu daf de nga fàtte sa jëm kaat bi noppalikul jim tey ndaxam waroo a dem jim tey jim fay taw te yow sa yaram wi sax rëyut de noppalikul ba suba xanaa say na fay dem say na fay dem faatu déggut ma ku dem xaritam ba fay dem mu ne mu ko fay dem sa jim ba maa ngi dem guys soo noonu la waaye xel suba jàmm gu ne demuñ school de soo faatu waroon naa xaar ba suba rek benn yoon bu anyway xaajuma la gars di delluwaat school xaw ma nag faat lu muy def suba ndax fay study xaw ma de de programme léego léeg moo xaritam bi bu ñu tasee si jëm bi fa benn jëm bu ñu dee dem fële boo xam ne gune yi fa dee mën a dem ak mag ñi yëpp du jëm yëpp ay jël gune bot moom jëmam bi fële fay jël gune ak mag xam na sax léegi fukki at ak juróom benn foog naa dana mën a dem si jëmi mag ñi sax you know what I mean so jos gune gi na gëm boppam loolu mooy gàllaajam gune gi yow boo ko dóoree muy waajadee du tax mu bani mel de mën na koo def bu la gisut fa la ragal rek moo ta gisoo ko te mën naa wecci nu mu koy defee ba doo ko xam waaye su gëmee boppam xam valeur am xam ne warta def li moom moo gën li su boobaa yow boo deewoon du ko def yàlla tere tereeti ko do you understand this so moo tax technique boobu la gune gi war a jàng bul dem waaye may dem ma war a dem toogee te nu ma toogee sax maa war a dem toggi lu time def ok juróomi waxtu mooy jot bot juróom benn waxtu bu jotee wala bu paasee tuuti fa war a fekk ma pare <clears throat> cere la xam ne loolu laa bëgg a defar xaw ma cere ak lan laay defar bo soo noonu la yow ngi jàngal gune gi gëm sa bopp te gune gi du muy gëmee boppam mooy yow nga gëm sa bopp yow yaay ji bu dee yaay nga bul xeesal jàngala gune gi ne ko sa ñuulaa bi baax na surtout bu dee jigéen la buy góor la it na nga gëm sa bopp bul xeesal mu xam ne suma ñulaay bi dara néew si moo tax suma yaay xame ko bul ne di fen bul ne di xam xarit yoo warta xam bul ne di def loo xamul ak loo mënut na gune gi xam ne nit loo mënut waxal déedéet loo mën waaw loo mënut bu ko jënd love you loo mënut bu ko jënd loo mën nga def ko xarit bu bon nga di ko oytu gune gi gis ko xam ko bul xam ay xarit yu bon yoo xam ne lu leen neex def gune yi di ko gis oh my god yërëm naa gune yooyu ndeysaan loolu ban bunt nga leen di ubbil ak gune léegi nii yàqu atu bëri yu bon moos nga war a tiit yow yaay ji ngay xam xarit yu bon wala baay ji wala jos ki yar gune gi bul def yooyu yëpp waxal ak gune gi te calm down nag te jàngal ko ba luram te di ko monitor di ko check that's another video but bu ko check ba du nokki bu nangu bu ko tëj ba du génn loolu tam daf koy créatal beneen stress ak dépression te loolu man manta manta tax mu baax man naa mag génn rek say fay génn sa néeg rek say lu lu mastono def yëpp mu di ko def man naa am so mbala mu jëlee si ragal ak fear ak ak insecurity you know ak anxiety <sighs> di làqu di te loolu su ko melee buy góor la wala jigéen xadunaam pare na su xamee jëkkër ju bon wala jabar ju dee na pak borom dana ko abuse toroxal ko yàq xalalam buy góor la sax ko fay ragal di lox because nanguwoo mu def dara nanguwoo mu génn nga di ko duur di ko pine muy lox rek ndeysaan mais ni slave thank you so much <laughs> yow good educator <laughs> teacher la war na do kay léegi buy jigéen lay du am confident soo xamee jëkkër ji bon yërëm naa ko dana dee pak su magee ba génn soo xamee xarit yu bon dana dee pak soo xamee jëkkër ju bon jëkkër ji bon dana dee pak du mën a protect boppam si àdduna bi ko doo nangu mu génn ba pare yaa ngi koy dóor di ko tiital muy lox du alaaw dara du def dara soo nga koy bàyyi mu xam àdduna bot nga di ko di ko protect in a way you know but not dóor dóor dóor an yu bëri because su police yi bëree torop rek fay tax du la du la xamalati du ko xamalati dara su ko bugguta ba nit koy police du tax mu bali muy def de moom moo koy bugga ba mu ba ko su ko buggutee ba fay wecc num koy defee muy mag muy gune dégg ngeen lu ma leen wax ok maa ngi dem again maa ngi leen di fàttali nit su buggutee xaban lu muy def yow nga wax wala nga dóor ko du tax mu bakko de fa koy ulbati num koy defee jàng beneen technique boo xamul master technique boobu nag nga xam ne fa koy continuer ay xat doo ko xam mbala su jàngee leneen lu bon bala dugg si leneen lu bon mu nëbb la ko meg soo ne fay prépare boppam defar ko organise ko ba doo ko xam exactly kon nag bu leen ne di dóor gune yi dóor yu xëpp xaduna si léegi fa bëri yu bon te su ngeen di dóor gune yi lu bon luñ dugg doo ko xam dégg ngeen li ma leen di wax kuy dóor gune ku ne na ko ba bul wax ne xas naa ba commencé di dóor is too late ceeñ te ne ne leen su ngeen defaan dara ma leen di dóor waaye léegi du ma leen te mu ne leen ah, nga ne ko waaw baal ma àq sax si dóor yi ma la doon dóor maa mag ñu di ma dóor moo tax suñu askan noonu la ñu def bot seet naa ko seet baaxut mu ne la ah, nga ne ko waaw gune yi fañ lay loof te la si loolu bul foog ne soo ko defee gune yi fañ lay yàpp wala nangam ñun ñun nit xaw ma lu tax ñuy foog ne suñ defee luñ war a def duñu am luñ bugg seetlu ne ne ñun nit ñun nit loolu mooy suñ ennemi fa ñuy foog ne suñ defee luñ war a def duñ xam lu baax lu ñu bugg jëkkër sax nga koy am mu xalaat ne su ma loofee jabar ji yërëm ko du ma respect du ma loof ma ko war a toroxal pour mu ragal nga toroxal ko ba far sëy bi tas nit ngay war a gëm sa bopp nga ne su ma gëmee sama bopp am xalal di hii war a xalku ndax ma am xalal gaaw oh my god ne suñ suñ defee lu ñu war a def duñ xam lu ñu war a xam moo ma jaaxal te def lu nga war a def du tere nga xam li nga wara xam nga koy xam ba xam dabul barki salaatu faatiya xam naa ne ñun fa ñuy julli waaye gëmuñ yàlla bot gëmuñ ne li kilu yàlla wax ne nga koy xam nga koy xam ba te xam naa ne yàlla yàlla bay sa tool waaye gëm sa bopp du tere nga bay sa tool fa dane nga koy bay normal bay doo ko bayee leneen loo ko war a bayee du understand that ne tool yi mën nga koo bay normal bay jël ngoo si bay ko instead of ngay xuti poison boo jël rek suy ko si ñax mi rek pour ñax mi dee gerte gi mën naa deexaale <laughs> xendu leen jàmm beneen vidéo incha <laughs>